إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسه الأمة ومحوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñongi ak yeen suratul baqara itambale aya 104 ba aaye 105 ñaari aaye yi borom bi tabaraka wa taala mi ngi ciy jox julli di ay orientation pour ñu am teggin ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu am yar ci jëmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko waral mooy yahud yi comme dañoo bañ yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba loolu jural leen ñuy jëfandikoo ay baat yoo xam ne du baatu teggin du baatu yar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baat yooyu nag dañuy ñëw jublu ci lu baax nga defa ne lu baax lañ ci jublu fekk lu bon moo nekk ci ginnaaw baat bi nga xam ne yow lu lay wàññi la yow mi ñuy waxal lu lay wàññi la suñ ci joxe misaal léeg-léeg ab sénégalais bu la bëgg a xas mën na utiliser benn baat xool kenn mu ne kii waa ji seer la quoi kii seer la mais baat bi boo ko déggee kii dafa seer dafa mel ne waa ji dafa bëri li muy jar mais xam nga ne yow mi dégg baatu seer kiñ ko wax dañ koo xas wala dañ koo tagg ah dañ ko xas mais baat bi lu muy tekki ku seer kii nit ku seer la kii marchandise bu seer la ça veut dire que loolu li muy jar dafa bëri mais buñ ko waxee nit kuñ ko wax xas nañ ko gis nga baat yu mel noonu la ñuy ñëw fekk yeneen bi toog ñu wax ko ko beneen bi mooy ci ab bu fekkee bii baat ma leen woon ci arab la ci ci olof la bii baat bi ñëw ci arab la dañ daan ñëw fekk yeneen bi toog ñu ne ko assaam aleyk assaam mooy yàlla na nga dee assam mooy almawt baat yooyu la lañ naan bërëxal jublu ci yow wax la benn baat fekk baat bi baaxul kii seer la mën nga jël beneen baat ci olof di nga gis fàqmaan yi bu ñu bëggee gis benn waay boo xam ne ci seen camp la bokk ci ñoom lu ñuy wax kii saaba la te yow mi dégg baat bi jàng xam saaba mooy kan ak waa ji ñu naan saaba xam nga ne ñoom ñaar ñi duñu benn saaba Sénégal day naan sàngara day tux yamba day doxaan day njaaloo day agressé saaba Sénégal saaba Muhammad nag mooy ku ragal yàlla dégg ngeen baat yi baat yi lañ daan ñëw fekk yonent bi toog ñoom yahud yi ñu koy wax yonent bi li ko ko wax lu bari ba saxaaba yi dégg loolu dafa ne baat bu baax la bugg koo wax yàlla ne leen hee attention yéen bu leen waxati loolu loolu nag dafay won ne jullit yi yonent yàlla muhammad du koo xam ne rek lu la neex nga wax ko ginnaaw yàlla muhammad moo ci tegu kon nañu am yar ak moom fi muxaatabati nabiyihim suñuy wax ak yonent tajannuban nañu moytandiku lil kalimaat ci baat yoo xam ne almasbuha ay mbir moo làqatu ci ginnaaw ka kalimatu raina comme baat bi nga xam ne mooy baatu raina bi yàlla di wax nii ci quran te di ko tere jullit ñi ñu koy wax yonent yàlla muhammad yàlla orienté leen bi mu leen tere baat yooyu indil na leen yeneen baat yu baax mu jox leen ko ne leen bu ñuy wax ak yonent nañuy wax baat yooyu baat boobu moo am teggin moo am yar mooy wane lu ëmb ne lu ëmb ngëm yàlla kii di wax baat bi kat ku gëm yàlla la yàlla tabaraka wa taala mu xamal jullit ñi almuminin mu xamal jullit yi mu ne leen bi ann alkafirina min ahli alkitab wa min gayrihim min almushrikin alwasaniyin la yuhibbuna an yunazzila alaykum min xayrin min rabbikum yàlla xamal na jullit yi ne leen bokkaalekat yooyu nga xam ne dañoo bokk ci ñi yàlla wàcce woon ay téere ci ñoom ak xërëmkat yi ñooñu day bëgguñu benn yoon yàlla wàcce ci kaw yonent yàlla muhammad xéewal ak jullit yi bëgguñu ko yàlla nag tabaraka wa taala moom xéewalam moo ko moom fu ko neex la koy def ku ko neex la koy jox xéewalu yàlla yàllaa ko moom ku ko neex place bu ko neex waxtu wu neex nit ñi ko neex mu defal leen xéewalam ki noppalu nag mooy ki yàlla jox nit xéewal mu nangu ko wala ñi yàlla jox xéewal mu nangu ko misaal màkk arab yi màkk yàlla moo leen jox xéewal day gis benn waay bu toog fi naan non gars yi arab yi lañ gëm wala nga gis ku toog Sénégal naan arab yi ay bandi lañ wala màkk dara nekku loolu yaa koy wax rek màkk dara nekku booy jublu bul fa jullu bul fa jublu bul aji màkk de ma ni ñoom seen lépp yemul ak ñun nañ wax dëgg nag te dee et puis ku gëmul arab looy gëm kan ngeen gis fii ku ñu yaakaar ci àddina bi tudd arab wax le ma kan la tijaan yi arab lañ yaakaar ci ama tijaan lan la xaadir yi la arab lañ yaakaar Cheikh Abdul ja xaadir Jeylaani lan la julit ñëpp Muhammad lañ yaakaar Muhammad lan la alquran bii ñuy jàng lan la anglais la allemand la français la espagnol la wala olof la arab la quranan arabiyan maa ngi ndoxum zam-zam sax arab la safaak marwa arab la kaaba gi arab la yàlla moo leen ko jagleel su yàlla jagleelee ay nit xéewal da nga koy nangu ñun bu ñuy julli lan la ñuy laaj est-ce que yéen tukulóor yi bu ngeen di julli da ngeen ne allah ko mawdo wala yéen olof bu ngeen julli da ngeen ne yàlla ku màgg la yéen tubaab yi Dieu est grand ah lu ngeen di wax allahu akbar baat boobu lan la baatu lan la arab jeex na kon nangu leen nangu leen xéewal bu yàlla defal ay nit ngeen koy nangu nangu leen xéewal bu yàlla wàcceel nit nangu leen xéewal bu yàlla baaxe ay nit yow yàlla moo leen ko baaxe ñun bu ñu góorgóorloo ñu bokk ci ñu ak ñoom ñu yem ci képp ndax loolu nekkul pour arab yi mais pour jullit yi la jullit yi ñoo ko moom du pour arab yi yàlla waxul fenn ci alxuraan ne alxuraan pour arab la dafa ne la ci làkku arab laa ko wàccee kon waruñoo toog fii di ci wax ay wax dañu war a nangu rek xam ne yàlla moo def loolu ñu nangu ko mbokk yi ñaari aaya yi ngoonuk tey gi insha allah ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ci lañ ko fas yéene def ñu ñaan bur yàlla mu nangul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء wallahu zul fadlil azim yaqulu jalla wa ala buur bi nee na yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla moo woote ñan la woo ñi gëm mu nekk xéewal bu rëy yow mi gëm yàlla yàlla di la woo ndeysaan tey bu benn président wala benn leader politique daal di taxawoon ci micro central di woo ay di woo ay ay militant am ñooñu dañuy am fierté parce que tey seen président seen leader moo taxaw di wax ak ñoom dañuy am kontante kon ñu nit ñu war a am kontante ak mbégte yàlla di ñu woo te ban baat la ñu woowee waxul ee yéen samay nit def ñu ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi ma gëm baat bi yàlla wax na ko ci quran quatre-vingts fois quatre-vingt-huit fois juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti yoon ci alquranu karim yàlla di woo ñi ko gëm juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti yoon yàlla naan ee yéen ñi ma gëm ee yéen ñi ma gëm yaa ayuha alladina amanu yaa xarfu nida manil munaadi kan moo woote allah kan la woo ki ko gëm yaa ayuha alladina amanu ee yow mi gëm yàlla fan yépp ñoo leen ci kanam ngeen bàyyi jigéen ñi ci ginnaaw démb waxoon nañ leen lan mooy njëriñu toog saful awal ak lan mooy musiba toog saful axiir démb waxoon nañ ko ci tafsir lan mooy njëriñu toog ci kanam ak mooy lan mooy musiba toog ci ginnaaw bés bu nekk ku nekk ci ginnaaw moom doo am dara doo fekkee dara fi mu nekk ni bu benn waaye ñëwoon ngeen yor xaas bi fii di joxe saful awal balaa muy egg fële gis nga même même takk yi bu ñuy séddale guro gi ñu ne ci ginnaaw du am dinañ ñëw ci kanam borom bi ne yaa ayuha allazina amanu naxa allahu ee yéen ñi gëm yàlla démb ak barki démb yépp ñu ngi doon wax baatu iman lan la ba chaque jour yàlla buy woo mu ne yaa ayuha allazina amanu ba kooku nga xam ne yàlla xam na ne kii am na iman léegi yàlla di ko woo ki yàlla di woo abdullahi ibnu mas'ud nee na soo déggee yaa ayuha alladina amanu mu ne dëngalal sa nopp mu ne joxeel sa nopp ubbil sa nopp déglul ndigal mooy ñëw nga war ko dégg jëfe ko wala tere di ñëw nga war ko dégg bàyyi ko moo tax yaa ayuha alladina amanu yi juróom-ñett fukk yi ak ñett ak juróom-ñett yépp daf lay wax defal wala mu ne la bàyyi Cheikh Aboubacar Jabir al Jazair daf ci bind benn téere tudde ko nidaatu rahman mooy aaya yooyu nga xam ne mooy yaa ayyuha allazina amanu juróom-ñett fukk ak juróom-ñett soo déggee ñu ne yaa ayyuha allazina amanu mu ne bàyyil xel sa nopp ndigal mooy ñëw ñu lay wax defal wala ñu ne la bàyyil ndigal mooy ñëw yàlla lan la wax mu ne laa taqulu bu leen wax muhammad raaina yow sunu sàmmkat bi xam ngeen yonent yàlla muhammad sàmm na wala ngeen koy ngeen koy wàññi bu leen ko wooye baat yoo xam ne day wàññi gëddëm moom yonent yàlla muhammad bu leen ko def mukk ci kaw suuf yéen jullit yi naha allahu taala ibadahu almuminin yàllaa ngi tere way gëm yàlla yi jullit yi an yatashabbahu ci ñuy nuru bil kaafirina yéeféer yi yéeféer yi fekk yonent bi toog ñu koy nuyu au lieu ñu wax ko ni nuyoo ko ni ko yàlla nuyoo ñu ne ko yàlla na nga dee assaam aleyk yàlla na nga dee moom mu comprendre baat bi ne leen waa aleykum noppi su ko defee yenn saa yi Aïcha jigéen la mu ne leen yéen yal na ngeen dee yal na ngeen torox yal na ngeen alku yonent bi ne Aïcha ndànk ndànk mu ne déggoo luñ la wax dégg naa ko kay mu ne déggoo li ma leen fay man la yàlla di nangul ñoom yàlla du leen nangul loolu nag yemale wuñ ko ci yonent bi rek waaye lépp loo xam ne mbirum diine la kilifa diine barabu diine dina ñaaw ab julit di ci teg baat di ko toppandoowee keneen ku dul ku gëm yàlla gis nga tey baatu fondamentaliste am na julit yi koy waxante seen biir lu tax fan lañ ko jële nga dëkk benn julit dëkkoon naag benn waaye boo xam ne bu ñu reyee ay nit bu américain yi reyee ay nit ay julit daf ma da koy jaral mu yónni doomam dem leen ngeen waxu sax ñu ñëw mu xool tey gaay bi nu ñu leen def wallahi su ma ñëwee mu kontaan kaay sa gaay yi tey américain yi dañ leen a rey dama naan ko yow duñ say gaa mu ne man kay ñi bokkuma ak ñoom dara nga seytaan lim def moom fexe na ba gëm ne warul bokk ci jullit yi ndeysaan da koy koy jaral laa la wax da koy jaral mu yónnee warga pour ma ñëw naan xool lan lañ def jullit yi lan lañ leen reyee même li ngeen di dégg nii ñu naan Usaama dañ ko rey am na ñu ci kontaan da ngay gis am ñu ci kontaan mbokk yi ab jullit ak ab yéeféer naka la jullit di farale ab yéeféer bàyyi ab jullit yàlla ne wal muminuuna wal muminaati baaduhum awliyaau baad ñaar yoon ngeen jàng innal muslimina lu ci teg wal muslimaat wal muminina wal muminaat ku gëm yàlla ku góor même bu dee jigéen moom ngay àndal ku gëm yàlla ku jigéen yàlla waxoon na ci alxuraan ne jullit yi ñoo war a ànd mu ne bu ngeen ko deful fitna am ci kaw suuf moom mooy li am tey kon waruñu yàllaa ngi tere ñu jël ay baat di toppandoo yéeféer yi fi maqaalihim ci seeni wax wa fiaalihim ak seeni jëf seeni terme wax ñun waruñu leen a toppandoo seeni langage waruñu leen a toppandoo seeni jëf waruñu leen a toppandoo mais mal asaf tey bokk na ci li tardé l'islam dëgg dëgg dëgg mooy jullit yi bàyyi l'islam di roy yahud yeeg nasaraan yi ci ni ñuy lekkee nu ñuy naanee lu ñuy sol nu ñuy dëkkee lépp ñuy toppandoo yahudi ak nasaraan te yàlla daf ñu ko tare te yonent yàlla muhammad yàlla daf ko yónni pour mu wuuteeg ñoom dinaa leen jox tey ay mbir yu bare bare yu yàlla yónni muhammad pour mu wuuteeg yahudi ak nasaraan yi benn ci nodd yonent bi ñëw na Médine ñu tabax jàkk ji ba pare gars yi ne ko nañ ut cloche bu julli jotee ñu fëgg ko julli di ñëw mu ne kon dañuy niroog nasaraan yi ñu ne ko ñu ut béjjën mu ne kon ñu niroog yahud yi gis nga buggul niroog ñoom dañoo toog ba ay sahaaba gént guddi malaaka di leen jàngal baati nodd ak baati li xaam ñu yeewu wax ko yonent bi ñu jox ko bilaal bilaal jàngale no bilaal mokk dàq ko cee def bilaal nekk noddukat bi ñaareel ci sikkim ak mustaas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen jullit yi bàyyi leen seen sikkim bi mu wàcc ngeen wàññi mustaas yi ñu ne ko lu tax mu ne nasaraan yi dañuy wat sikkim bi bàyyi mustaas yi yahud yi dañuy bàyyi ñaar yëpp mu wàcc yéen wàññi leen mustaas bi ngeen bàyyi sikkim bi ngeen wuuteeg ñoom wala te da ngay gis ab xalif général bu gor sikkimam bàyyi moustache bi ba pare daal di koy roowal nag mu ne nii nag mel ne bu zóoroo te yeneen ti waxoon na yéen bàyyi leen sikkim bi ngeen wàññi moustache yi pour ngeen wuuteeg yahudi ak nasaraan ni ngeen wuuteeg ñoom ñaataa ngi noonu ñaar ñett yonent bi nee na dee leen woor samedi ak dimanche wala ngeen woor vendredi ak samedi wala ngeen woor dimanche ak lundi ngeen wuuteeg ñoom parce que ñoom samedi ak dimanche dañ koy fo ñaata nga ñett yonent bi ñëw fekk na yahud yi ñuy feetu samedi nasaraan yi di feetu dimanche moom mu indi vendredi ak juma ñëw na fekk ñu am yeneen feet mu indil ñu tabaski ak korité mu ne ñaari yi la yeneen yàlla jox yéen pour ngeen wuut ak yahudi ak nasaraan ñaata nga ah cinq juróom ñëw na fekk yahudi ak nasaraan yi seen jabar bu indisposé dañ koy jël yóbbu ko ci ginnaaw kër gi am na benn néeg bu nekk foofu ñu bàyyi ko foofu du ñu jaxasoo ak moom du leen toggal lekk du leen may ñu naan du ñu wax ak moom parce que ñu ne ko da ngaa sobee alquran ñëw ne yéen jaxasoo leen ak jigéen ñi def leen lépp ba mu des sëy isna'u kullu shay'in illa aljima def leen lépp lekkandoo ak leen ak ñoom toogloo toog leen waxtaan ak ñoom fanaan loo fanaan leen sax ak ñoom ci kaw lal waaye sa soxna bu indisposé jumba xam ba ci óomam sa loxo araam na mu laal ko su jigéen gisee mbaax jumba xam ba ci óomam ci kanam ak ci ginnaaw araam na jëkkëram laal ko leneen lépp nag mun nga ko def ci yaram bi ba mu des diggante jumbax bi bëgg ci ko amoo droit teg foofu loxo mbokk yi moo tax yahud yi ak nasaraan yi bi ñu dégg gisee yonent bi lu ñu def mu def lii lu ñu def mu def lii ñu ne hee kii lu ko jot moom du dégg ñu def nañ dara illaa yu xaalifu naa lu dul mu opposé lu yonent bi ne yàlla damaa yónni pour mu opposé leen yonent bi da doon fan la doon jublu baytul maqdis loolu bokk na ci li tax sax mu wuuteeg ñoom muy julli foofu gars yi naan ko yow bu fekkee li ngay wax dëgg la bokk ñëw diine lu tax nga jublu suñu penku affaire bi commencé dugg ci xol yonent bi benn bis ci julli tisbaar ci benn mag ci benn jàkk ci biir mag yonent bi rukoo rek ci Medine yonent bi rukoo rek ya Jibril ñëw ne ko yàlla nee na nga tourné nga jublu masjid al aqsa masjid al haram yonent bi daal di tourné sahaaba yëpp tourné bi mu paree mu gis ñëpp tourné mu ne sahaaba yi lu tax ngeen tourné gars yi ne ko yaa tourné ñu tourné ndeysaan dalaa yaa tourné ñu tourné ñoom dañoo xamoon kan mooy yonent bi waaye ñun bu doon ñun fii la nga dégg yonent bi mu ngi màkk woor na ñun gisaguñu weer wi nga dégg wari na ñun gisaguñu jotaguñu ndigal bu yonent bi doon dund laa wax léegi heure bi nekk màkk wala Médine wallahi ay jullit dinañ toog fii Sénégal di xaar weer ay jullit dinañ xaar weer fii toog di xaar waaw bokk na ci ba tey julli sol dàll ak simmi dàll yonent bi nee na wuute leen ak yahud yi bu ñuy julli dañuy summi seen dàll bu ngeen di julli yéen julli di sol leen seen dàll ñaataa ngi noonu yonent wuuteeg yahud yi ak nasaraan ñaata la gis ngeen ni mu bare kon yàlla tabaraka wa taala sunu diine bi muy lislaam diine la boo xam ne dafa wuute ak yahud yi ak nasaraan yi waruñu noonu ñoom mais tey xool leen sunu dëkk bi fan lañ gën a jege ñan lañ gën a jege yahud yi wala nasaraan yi wala jullit yi yahud yi ak nasaraan yi lañ gën a jege yàlla ne seeni wax ak seeni jëf sax dañu war a wuute ak ñoom bu ñu jël ci ñoom dara wa zalika anna alyahud kaanu yuaanuuna min alkalaami ma fihi tawriya dañ daan joxoñ yonent bi saa sallam ay wax yoo xam ne wax yi amul benn respect amul benn teggin amul benn yar ndax dañ ci daan jublu di xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di koy daal di leen koy tere alxuraan sax ñëw na di ñu nettali yàlla mu ne min allazina haadu yuharrifuuna alkalima an mawaadi'ihi wa yaquluuna samicna wa asayna wasma gayra musmic wa raacina layyam bi alsinatihim wa tacnan fi ddin yàlla mu ne walaw annahum qaalu samicna wa atacna wasmac wanzurna lakaana xayran lahum wa aqwam walakin laanahum allahu bi kufrihim fala yuminuuna illa qalila gis ngeen al aaya bi moo ñëw di dëggal ne yahud yi dañ daan fekk yonent bi toog ñu koy bërëxal ay wax yu bon ñu koy wax ay wax yu bon kon mbokk yi alquran bii ñuy jàng nekkul lu ñuy ñëw rek teg ko ni suñu kanam weeru koor jot ñu daal di ñëw rek def def tafsir dàq dàq dàq dàq lan dàq koor rey temps bi quoi xaaral ma def tafsir koor ndax ma rey temps bi foofu déedéet loolu moo tax ba ñu bàyyee alxuraan def ko téere barkeelu def ko téere tafsir weeru koor ba weeru koor jamono jooju la jullit ñu alku ba tey alquran bi lan moo tax saxaaba yi raw ci nit ñi lu tax saxaaba yu baax mooy 24 heures sur 24 ñoom ñu ngi dëpp ci tafsir yi alquran bi di dégg di jàng bu dégg bëccëg jàng ngeen ñu ne ñaari saxaaba suñu dajante woon suñu daje woon ci mbedd duñu dem ñoom ñaar lu dul danañ fàttalante ban saar suratul as lu mu tuuti tuuti dinañ fàtt taal numinu saa loolu sax lañ doon wax taal numinu saa ku nekk fàttali sa morom suratul asr ñu doog a dem ñun tey li tax sunu mbir doy waar mooy fi mu nekk nii bu koor gi jeexee rek ñu ajaat kaamil yi daan ne ko ila ramadan prochain insha allah yaa kaamil loolu moo tax ñu am problème il faut ñu xam ne sunu dund li koy baaxal fi la nekk yàlla ndigal yi muy joxe dafa bëgg ñu xam fu ñu teg sunu tànk moo tax mu ñu koy wax suñu xamulee alquran wallahi duñu mun topp yàlla duñu xam fu ñuy teg suñu tànk te guddeeg bëccëg yowul yeeg nasaraan yaa ngi sëgg suñu nopp yi loolu moo tax ñu leen di topp tey xoolal jigéen ñi ban col la ñuy sol colu lislaam wala colu yahud ak nasaraan ah xoolal daanaka Sénégal jigéen ñi futteeku nañ moom am nañ yaramu neen lu ko waral parce que kenn du leen wax alquran kenn gëmloowu leen alquran kenn jàngalu leen alquran te alquran moo ñëw di leen wax ñoom fu ñuy teg seen tànk gis ngeen ñaari mbir ci islam li yonent bi di fort fort fort fort yàlla jox ko yonent bi loolu yàlla moo ko téye ci loxoom mooy jigéen ak alal jigéen yàlla dénk ko yonent bi jigéen nu muy solo yéreem yàlla moo ko xotti moo ko xotti yére bi ñëw ko jox jigéen mu solo jigéen suy dox yàlla moo ko wax nu muy doxee jigéen suy wax yàlla moo ko wax nu muy waxee yére yi lan la yàlla wax yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai lmuminin maza yudnina alayhinna min jalabibihinna gis nga yow yonent waxal say soxna aïcha khadija hafsa ak say doom fatima ak roxe umu kalsum zeynab wa nisaa'il mu'minin ak jigéen ñi gëm yàlla waa Sénégal ban ban catégorie lañ bokk ci ñetti ñetti groupe yooyu fan lañ ko bokk ci nisaa'il mu'minin yàlla mun a yudnina alayhinna min jalabibihinna nañu muur seen yaram yi kon yàlla mootal jigéen yére suñuy dox yàlla mu ne nañu dox ndànk bu ñu dóor seen tànk ci suuf kon yi ñu takk day yëngu wala yàlla wax de wala yàlla wax loolu yàlla mu ne jigéen ñi bu ñuy dox nañu dox ndànk bu ñu dóor seen tànk yi lu tax am na yu ñu takk ci seen yaram day yëngu kon su ko góor déggee bu góor gu feebar da koy yëngal loolu nag yàlla ne woon dafa nëbbu ci biir yaram tey fan la ko jigéen ñi teg ci biti nga gis ku sol ba bare daal di jël loolu yàlla di wax daal di koy teg ci kaw soo ko nee salaam subhanallah mu ne la yaa ko xool xoolu la noo def ba gis ko gis ngeen gis ngeen kon nanu bàyyi xel ne alquran bi buñ ko yàlla di jàngal yàlla waxu ko ngir ñu dégg ko rek dem tëdd nelaw bu bëgg ñu xam fu ñu teg suñu tànk yàlla mu ne subhanahu wa taala am na ci yahudi min allazina haadu ñi nga xam ne ay yahud lañ yuharrifuna alkalima dañuy changé ay baat an mawaadiihi ci ay barabam dañuy soppi baat yi dañuy fekk yàlla wax lii la ñu ne du loolu lii la dañuy fekk yàlla ne nañ ko waxee nii ñoom ñu waxee ko nu leen neex ba pare wa yaqulu na ñu nga naan sami'na wa asayna ñun dégg nañ de ñu ne waa dégg ngeen ñu ne waaye ñun sama fu defuñu ko wa asayna defuñu ñu ne dégg nañ déglu nañ déggu aji lànk wasma xayra musme déggu ku lànk ku lànk bañ a dégg xam nga yenn saa yi ngay wax ak nit mu ne sëgg di la xool ba nga pare dégg nga mu ne dee dégguma ci dara de ndeysaan fekk mu ngi nii jege la mu ngi lay xool yenn saa yi sax xool bi mu xool la ba ngaa gémmiñ gi nga pare nga di ko dégg mu ne noonu dégguma dara ci li nga wax de waxaatal loolu mooy jikko yahud moo tax yàlla di ko tere jullit yi yàlla mu ne dañuy changer langage wa taanan fi diini ak di jam diine di jam diine waaw yéen yéen yi ngeen ne su su ngeen rendee dagan na mun nañ kaa lekk ñu ne waaw dagan na kay mun nañ kaa lekk ku rendi mun nañ koo lekk mu ne bismillah jubal ko penk rendi ci charte islam yi wala waaw ñu ne lu tax yàlla bu rendee na mu ko aram boo xëy suba fekk sa xar dee ñu ne xar bi ne dee na yàlla rey na ko ñu ne yàlla bu reyee mu aram yéen bu ngeen reyee mu dagan gis nga dañ lay yóbbu pour lan pour taanan fi diin pour jam diine fekk demewul noonu bu ñu déggee baat yàlla mu ne man zal lazi yuqridu llaha qardan hasanan kan mooy lebal yàlla lebal bu rafet ñu ne yéen seen yàlla ji pauvre la dafa ñàkk ma ngay lebu gis nga yemuñu foofu sax dem nañ ñoom ba xas yàlla ñu ne yàlla loxo yi dafa kët yadullahi maxluula wax nañ ñoom ñoom ñooy doomu yàlla yi nahnu abnaullahi wa ahibbaahu gis nga yahud du hasard yàlla di ñu wax alquran seen jikko ak seen musiba pour ñu mun leen a moytandiku loolu kese moo tax yàlla dañ ko wax pour ñu mun leen a sori ñu xam ne ñun du nu baax mukk fekk ñu ngi collaborer ak yahudi ak nasaraan yi jamais mbokk yi wa kazalika jaat al ahadis bi axbaari anhum bi annahum kaanu ida sallamu wa innama yaquluuna assalaamu aleykum wassalaam al mawt gis nga mu ne même ñëw na ci hadis wax naa leen sànq hadis bi dañ daan ñëw fekk yonent bi toog ñu koy bërëxal naan ko yàlla na nga dee assalaamu aleykum te nuyoo boobu tey moom la julli nii di nuyonte ñaata yoon la benn julli ñëw feneen bi mooy assalaamu aleykum assalaamu aleykum mooy yàlla na ngeen dee ñeneen ñoom dañ ñëw ne salaamaaleykum mooy yàlla bu leen am jàmm ñeneen ñi ne maaleykum salaam yàlla bu leen am jàmm moo tax dëkk bi du am jàmm salaamaaleykum waaleykum salaam asalaamaaleykum waaleykum salaam ñi naan yàlla ngeen dee ñi naan yéen tamit yàlla ngeen dee ñi naan yàlla bu ngeen am jàmm ñi naan yàlla bu ngeen am jàmm dëkk bi nu muy amee jàmm ba léegi nuyonteegu nuyoo lislaam nuyoo lislaam foog mu am alif ak laam ñu sadd sin bi mooy asalaamu aleykum mooy yàlla na ngeen am jàmm nuyoo boobu keroog ba yàlla bindee aadama ci biir aljanna aadama yeewu yàlla mu ne ko demal mbooloo malaaka yële toog nga nuyu leen nga déglu luñ lay fay yàlla ne aadama boo demee nga leen assalaamu aleykum aadama ñëw ci malaaka yi ne leen assalaamu aleykum malaaka yi ne ko wa aleykum salaam yàlla mu ne ko lii mooy sa nuyoo yaag say yaag say doom yaag sa xeet assalaamu aleykum mooy lan mooy yàlla na ngeen am jàmm yàlla na jàmm nekk ci yéen loolu ak yàlla na ngeen dee ban moo ci nuyu loolu ak yàlla bu leen am jàmm loolu moo tax ci ci ci ci islam ku mënul nuyoo mënoo julli gis nga bu ni taxawee julli ba julli gi jeex mu ne salaamaaleykum julli gi yàqu na lu tax julli gi yàqu na nuyoo farata la assalaamu aleykum farata la ci julli farata la farata mooy loo xam ne boo ko bàyyee si julli yàqu nuyoo faratal nga gis nag ab ponkal mu taxaw ne lëng la ngaaral julli ba jeexal taaya at ne salaamaaleykum jóg faxas amul julli julli gi yàqu na julli gi yàqu na loolu moo tax nañu bàyyi xel baat yi niñ koy waxee nañ ko jàng ñun ñëpp mokkal nañ war nañ koo mën a mokkal ndax mokkal nañ lu ko ëpp tey jàng nañ mokkal nañ lu ëpp ay nuyoo ak yu kenn xamul ngor ci ñun am na ñoo xam ne jànguñu mais dañuy manipuler ordinateur dañuy manipuler ay portable dañuy mani dañuy dawal oto lu nekk la ñuy def te kenn jaamu ko fenn waaw dara su dul diine bi nag non man nag jotumaa jàng jotumaa loo teree jàng lan moo la teree jàng luy sa empêchement ba nga ba jàngoo non xam nga man bi ma nekkee xale daara lañ ma yóbboon rek ma mokkal Fatiha falaay naas après nag ci lañ ma orienté quoi ci école nasaraan yi nii nii nii nga toll jàng dalaa raw jàng raw la di xanaa xamu leen ci Sénégal am na fi ay nit yoo xam ne bi ñu nekkee kilifa lañ jàng français ba tekki bi ñu nekkee ay kilifa laa wax lañ jàng français ba tey ci Sénégal kuñ ne kii jàngul woon français démb doo ko gëm am na ñoo xam ne sax léegi def nañ ay doctorat fekk mosuñu dugg école ci anglais ak lépp nag yi ñun fii rek ngay gis ku ne lang langaara lank bañ a jàng diine ji te l'islam ku jàngul bokkoo islam bi ku jàngul bokkoo de pour nga jëriñu foog nga jàng waaw téere jàng la téere bi njëkk a wàcc alxuraan lan la wax aaya bi lu mu wax iqra jàngal soo jàngul bokkoo mais nag li ëpp ci Sénégal bëgguñu jàng diine bi xam ngeen lu tax bëgguñu jàng diine bi pour bañ koo jëfe kese la ndax dañ naan i jàng wóorul boo jàngee léegi nga xam defoo ko da nga yow yow ii gis nga moo taxit alku rek mbokk yi foog ñu jàng ku nekk ci ñun na gàddu kayam dem jàngi koñ boo dugg am nga fa ku lay jàngal di nga fa fekk ab ilimaan mbaa ab sëriñ mbaa ab ustaas bu la jàngal jullit day jàng yàlla nee na man kaana fi haadihi ama fa huwa fi l axirati ama ku xamul fii dara ëllëg yowmal xiyaam kàmmu jahannama lañ lay sànni de kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban fala takun alxaamis man huwa alxaamis aljaahil jullit warul nekk taxankatu guddi xam ngeen taxankatu guddi mooy ku bàyyi ba guddi mu jël saakam dugg ci tool yi ne day ut matt mën na faa fekk jaan bu lemu mu defa ne matt la mën na faa fekk ay dem àll ba yu wow kong ñuul kukk mu jël dugal ci saak bi kañ lay xam ne li mu jël lu ci ëpp du mat bët set bët set mooy nga dem jàngi uti xam-xam yàlla nee na yaa ayyuha allazina amanu ee yéen ñi gëm yàlla laa taqulu bu leen wax muhammad raaina ay baati ayibël wa qulu wax leen ko unzurna xool nu xaar nu hatta nafaham ma taqulu wa nahfazu ba ñu xam li ngay wax ñu mun koo comprendre dem jëfi ko ab julit loolu lay def ab julit day am respect ci yonent yàlla muhammad gis nga yonent yàlla muhammad yàlla day wax sax nag la tarfaw aswatakum fawqa sawti nabi ya ayuha allazina amanu la tarfaw aswatakum fawqa sawti nabi kenn amul droit sax di yëkkati sa kàddu ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab julit su déggee sax ñu ne muhammad dafa war a wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na albaxiilu man zukirtu indahu walam yusalli alayya ki nay dëgg-dëgg mooy ki dégg ñu ne muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam kii moo nay ci minbar jour vendredi bi su julli ajjuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeg ci minbar bi ne amin ñetti yoon sahaaba yi daal di koy laaj bi mu paree tey gis nañ nga wax ñetti yoon amin mu ne jibril moo doon ñaanal alkande ñetti nit may ndox amin mbokk yi ci yéen ñi ñëw tafsir ku ci am dàll yu baax na ko dugal ci biir jàkk ji yéen ñi ñëw tafsir nekk ci biir jumaa ji ku ci am dàll yu baax dugal ko ci biir y a des séeréer ici fan yi yëpp saa yu paree am na ñuy yóbbu seeni daal fan yi yëpp même démb loolu baaxul ab jullit nooy wooree ne da ngaa woor ñëw di sàcc te da ngay da ngaa woor yàlla mu ne waquulu na ngeen wax yonent yàlla muhammad unzur naa xool nu lu tax am hil naa dafal daf nu ndànk xatta nafham ma taqulu wa nahfaz ba ñu dégg li ngay wax ñu comprendre ko yàlla mu ne wasma'u na ngeen dégg li ma leen wax wasma'u na ngeen dégg na ngeen dégg li yàlla wax mu ne walil kaafirina ñeel na yéeféer yi lànk bañ a dégg li azabun mbugal alimun mu métti képp ku dégg yàlla wax li ak yonent bi nga lànk bañ ko def yow ab yéeféer nga te ab yéeféer ëllëg yàlla lim ko dencal mooy mbugal mu métti azabun alim walil kaafirina azabun alim baat baat bu war a bu ñu war a taxaw a ngi nii baat bu ñu war a taxaw mooy ban baat walil kaafirina azabun alim yàlla mu ne képp ku weddi ñeel na yéeféer yi ñi weddi yàlla azabun mbugal alimun mu métti walil kaafirina rek la wax de ñeel na ñépp ñu weddi yàlla kon ku mën a doon rek boo wedde yàlla dugg nga ci biir walil kafirina azabun alim waxul yahudi waxul nasaraan yi parce que ñan la yàlla di waxal ci aaya bi ñan la yàlla di waxal allazina amanu moo tax mu ne leen yaayu allazina amanu ba pare mu ne leen wasma'u na ngeen dégg li ma wax man yàlla allahu akbar wasma'u na ngeen dégg tey bu njiitu réew mi daal dina waxoon ñi mu jiite ñu koy jàppale ci liggéey bi dégg leen li ma leen wax danañ ko dégg wala duñ ko dégg ah danañ ko dégg de tey commandant bi jiite gendarmerie bu ne woon gendarme yi dégg leen li ma wax danañ ko dégg wala duñ ko dégg yàlla tabaraka wa taala mi borom jaam ñi daan ne wasma'u na ngeen dégg li ma wax mooy lan bu leen waxateeg yonent bi di ko orienté di jubal ci moom baat yu yellul yemul ci loolu mu ne képp ku weddi loolu walil kaafirina ñi dégg loolu lànk bañ a bàyyi loolu continuer di ko def wala ñu weddi sama wax lànk bañ maa déggal walil kaafirina azabun alim mbugal mu métti mu ngi leen di xaar gis nga pour ñu xam ne yàlla sunu jàmm la bëgg yàlla bëggul bëgguñoo mbugal bëgguñoo dugal safara mu ne maa yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikin an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum gis ngeen orientation yi moo tax alquran moo ñuy jubal moo ñuy baaxal mu ne maa yawaddu bëggul allazina ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañ min ahlil kitaabi te ñu nekk ñooñu téere bokk ci yahudi ak nasaraan yi wala al mushrikiina ak bokkaalekat yi an yunazzala yàlla wàcce aleykum ci yéen min xayrin ci benn yiw min xayr lu mu tuuti tuuti tuuti ñoom bëgguñu yéen ngeen nekk ci jàmm bëgguñu jàmm ñëw ci yéen allahu akbar kan ma wax li yàlla moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla mi xam moo wax ak ñun comme ñun lu nu war mooy ñu gëm waxu yàlla yàlla moo nañu yahud yi ak nasaraan yi bëgguñu benn xeetu yiw ak bokkaalekat yi lenn luy nuru lu baax rek yéen jullit yi ngeen am ko lenn luy nuru lu baax maa yawaddu lazina kafaru ñan ñooy alkaafiriin yi mu ne aljahidiina ñi weddi yàlla almukazibina lillahi ñi ko fenloo ñu fekk yàlla wax ba pare ñu ne yàlla li mu wax du dëgg ñi fekk yàlla yónni yonentam ñu ne kii du yonent ak ñan al mustahziin ak ñi nga xam ne ñoom weddi wuñu de duñu ay yéeféer de waaye ay jullit lañ waaye bu yàlla waxee ak yonent dañu taxaw di ree yéen di dégg ngeen ki lim wax nee na di li yàllaa ko wax laa ilaha illallah di ko di ko di ko di ko xaqataay di ree yaakaar naa la ñu mel noonu nag bëri ngeen ni ci bëri na fii trop ci seen réew mi ñii ree li yàlla wax ak yonent di ko reetaan te bu leen fàtte am na nit ñoo xam ne lu leen def ay yéeféer mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare yéeg ci fasam jiitu sahaaba yi topp ci mu romb ay nit ñu toog yonent bi ne leen yéen du ngeen ñoo xeexi ñu ne ko naaj bi daa tàng ñun xeexi wuñu yàlla ne leen yéen ay yéeféer ngeen ci baat boobu ñu wax rek alxuraan daal di wàcc ne ñi ay yéeféer lañ yow yonent bul jëflante ak ñoom bi ñu xamee ne alxuraan wàcc na ñoom ñoo ñu toogoon lànk ne naaj bi daa tàng du ñu xeexi alxuraan nee na ay yéeféer lañ ñu ñëw ci yeneen ne ko non ñun dañ doon kaf rek dañ doon kaf dañ doon fo quoi yàlla ne leen abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum baada imaanikum gis nga baad baada imaanikum weddi ngeen yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla tey ay yéeféer ngeen ñun ñaata nit ci ñun fii ñooy fekk lu yàlla wax yonent wax ñu ñu koy reetaan ñaata ñaata ci ay melokaan yoo xam ne islaam nangu na jullit mel ko wala mu def ko wala mu wax ko soo ko waxee wala nga def ko ñu lay xas yenn saa yi sax nga gis kuñ ci génne seen kër ñaata yoon ngeen gis jigéen ñi muuru ñu leen di ree nga gis ku muuru sol tout noir nga di gaay naan ko lingeant lingeant noir ak yeneen i baat yoo xam ne yéen a ko gën a xam Michael Jackson bu daggee tubéyam ñu ne gentleman la ab sunit bu daggee tubéyam ñu ne ko yow eh seen kër daataa xanaa seen kër daataa fal di sabate diine quoi di sabate diine boo nee doo joxe loxo doo nuyu jigéen ñu am fuñ la dëkkal am yuñ lay wax di la xas duma fàtte mukk benn bis benn jigéen bu doon dem màkk ñëw ne ma damay dem màkk ñëwal ñaanal ma ñu ñëw këram ndeysaan fekk moo wujjëm ñoom ñooy ànd dem màkk moo wujjëm wujj bi tëj këram ñëw ci kër ñaareel bi nekk fa seen jëkkër di leen yóbbu màkk am na fa benn góor goo xam ne dafa ñëw fekk nit ñi toog góor ñu toog ni jigéen ñi toog mu tàmbali di nuyuwaate non non benn jigéen moo ñëw fekk góor kese kese ci saal bi mu dugg di nuyoo di joxe loxo bees ci benn mbokk ne ko nii kooku ne ko asalaamaaleykum benn paa ne ko indi indi man waaw xolal inna lillahi benn mbokk ne ko loolu yonent yàlla muhammad daf koy tere nee nañ képp ku jox loxo jigéen ju la lewul yowmal xiyaam dinañ dugal sa loxo dinañ dagg ci jahannama lu toll ne bekk sukkar teg ko sa loxo mu ne bu droite bi lakkee ma dese gauche bi ne kooku fu mu toll ah loolu yëpp xam nga lu ko waral mooy di jéem a jaay yàlla dëgër bopp ak diine lislaam rek waaye xam nga ne jahannama daggitam xejul ci doomu aadama waaye dëgër bopp rek ak a bëri ci réew mi nag ak a bëri ci réew mi ay nit ñoo xam ne bala ñuy kontaan xas diine ci weeru koor lañ ne day gis benn waaye bu wóorul day jege restaurant bi de xanaa mënoon naa dugg ba ci biir mais fële lay toll eh dafal ma ñaari kaas yow ak ñaari kilo ñëpp di ko dégg naan ko nii di ko geesu wala ci digg mbedd mi nga gis mu naan nii cigarette bi di xër nit ñi ñaata yoon ngeen koy gis loolu jikko yahud la yahud ak nasaraan ñoom ñoo moom jikko yooyu bu leen ci julli di toppandoo musiba dal leen yàlla nee nañu maa yawaddu allazina kafaru mu ne ñooñu aljahidin la almukazibin almustahziin bihima aw bi ahadihima kuy reetaan diine wala ngay reetaan yonent bi ñaar yi ñett ñi rek ñoo koy def yahud ak nasaraan ak jullit bu kàccoore bu réere diineem ak bokkaalekat am mushrik waaw mushrik dañu rek ñooy def lii subhanahu wa taala sunu borom mu ne baat boobu ngeen dégg mu naan azabun alim mu ne kasirul alami sadidul ijar mbugal mi yàlla di mbugale ëllëg yowmal qiyaam di mbugal ki nga xam ne dafa lànk bañ a topp yàlla su nit ñi xamoon loolu kon dinañ xam ne dara jaru ko fi ci àdduna bi mbugalu àllaaxira soo xamoon ni mu toll kon dara ci àdduna bi du la ko jaral dara dara ak loolu nga loolu nga yaakaar ne njëriñ a ngi ci lu mu rëy rëy rëy rëy rëy mbugalum àllaaxira du la ko jaral gis nga yàlla mu ne min ahlil kitaab wala al mushrikin al yahud wa nasara wal wasaniyin min al arabi wa gayrihim kuréel yooyu di xas diine ñi ci njëkk mooy yahud yi ak nasaraan yi ak animiste yi ñi jaamu xërëm bokk ci araab yi wala bañ a bokk ci araab yi ndax araab yi ñoom bokkuñu woon ci ahlul kitaab ñoom ay xërëmkat la ñu woon dañ daan jaamu xërëm ndax ci biir kaaba gi defoon nañ fa ñaata yàlla ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett arab bi moom ay jaamukatu estati lañ woon ay estati lañ doon jaamu ay monument yu ñu tabax douze milliards wala ñaata milliards la monument amul place ci l'islam monument xërëm la yonent bi dafa fekk ñetti téeméer ak fukk ak ñetti ci biir mu daaneel ko keroog ci fatxu Màkk yonent bi ñëw war gëléem gi wàcc yor kaan bi kaan bi lay joxuñ xërëm ne qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batil kaana zahuqa xërëm yi di màbb qul jaa al haqq waxal dëgg ñëw na dëgg mooy xërëm bu mu fi nekkati waxatuma nag xërëm boo xamante ne daf la ne yéen jullit ñi bu leen jublu penku na ngeen jublu sow nii la leen def nii mu ne ngeen jublu nii yéen ñëpp xërëm amul place ci l'islam moo tax sax jullit ñu koy tere mu takk photo mu takk photo indien tey da ngeen di takk ay photo ci seen dënn yi def ay ngandu maami estati ci seen saal yi wala indi benn kilifa diine def ko ngandum poster ci biir saal bi loolu xërëm la bokkul ci islam bu leen fàtte jàng ngeen suratu nuux yéen ñëpp seytaane moo ñëwoon ci niti nuux ya balaa yàlla di yónni nuux ne leen jël leen seen nit yu baax yi ngeen foto leen teg leen ci place yi ñu doon toog ndax nit ñi daal di seen xel dem ci yàlla ñu daal di jàpp sëriñ sa def leen ay estati teg leen ci place génération boobu waxoon loolu dee seeni doom ak seeni sët ñëw di commencé raay xërëm yi di diwu ak di fa bóof di jooy bi nuux ñoo di woote lan lañu wax laa tazarunna alihatakum gis nga aliha lañ leen tudde léegi nekkatul lu ñuy barkeelu mais aliha la wala tazarunna waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yauuqa ñoo ñëpp ay kilifa diina lañu woon yéen tey Sénégal ñun ñëpp tey genn wàll gi yëpp ci ñun loolu ay institut la ñuy def kilifa diine yi def ko ci saal yi wala def ko ci yenn place publique yi waxuma dara sax mais seen bàmmeel yi te xam ngeen ne loolu islam daf koy bañ benn jigéen ndeysaan kooku moom du séeréer moom tukulóor la daa dem Medina Medina su mun a war bëgg a raay bàmmeel yonent xabru yonent bi diw ci kanam gi ñu ne ko xaraam mu ne ñii soxor rek soxor rek bee ko bee ngoni hay nelaado be jidaa mem de du boobu moom ñoom aali la moom boobu du séeréer gis nga boo demee màkk nga bëgg raay fu yonant bi nekk boo nee nii xam nga lu la naar yi di wax dañ naa ne lii xeer la waxu ci dëgg fii jàkk la wala du jàkk bu ma ñëwee tey dama bëgg barkeelu jàkk ji ma ni nii lan laa laal karo laa laal ana barke bi karo la bu ma nee nii ci moquette yi lii moquette la foo dem fekk ko fa lii karo la foo dem fekk ko fa loolu tabax la moo tax boo nee nii ñu ne la sëñ bi lii xeer la wallaay loolu la arab yi di wax dañu naan haza hajar dugg naa armée lu Madine baxi fi ñu sul saxaaba yi dugg naa ci armée yi dañ net kenn kenn nettali ma de man maa ko dugg maa ko dund bi ma duggee ma liir tableau bi lu ñuy waxee ni ñuy defee aadabu ziar mu ñuy ziaree armée yi soo duggee tableau bu ngand la bu bleu dañ fa bind teggi nii soo duggee ci armée yi lan lañ bëgg ko def ma liir ko ba pare ma jubal ñu gis boroom xam-xam yi ndeysaan xale yi ñu ngi taxaw dañoo tas xale yi ci biir waa jaami al islam yi parce que bëgguñu ko fa bokkaale ma ñëw fekk benn xale fi nga xam ne moom damaa jàng ne fii Ousmane Ibn Affan lañ fi suul bàmmeel bi mais damaa bëgg lu wóor daal ma ñëw ne waa ji asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ma ne ko haza xabru man mu ne maa fihi fayda الدعاء فقط هذا صحابي إذا دعوتهم جميعا دعوت له ادعوا الله لهم فقط أما أسماء لا ينفع لا يزول من يقول وانك دقيري والله يا أخي وانك دقيري حقا بارك الله فيك ngere mu ñëw ne ku tëdd fii mu ne ma amul njëriñ saxaaba la ñaanalal saxaaba yëpp boo ñaanale saxaaba yi ñaanal nga ki tëdd fii mais tur bi amul benn njëriñ ma ne comme ñun Sénégal lañ jógee ñun loolu lañ gëm Sénégal moom la raay bi téye ko lay waay sama waay wax nga dëgg wax nga dëgg de amul benn njëriñ tur yi amul benn njëriñ il faut ñu bàyyi xel loolu mais mal asaf da ngay gis Sénégalais yi da ngay dem di xeex soo déggee ku ku añ màkk boo xuloowee sa añ màkk yàqu na wala boo fa xeexee sañ maa ko yàqu na bul ànd ak Sénégal de bul ànd ak waa Sénégal de boo ànd ak ñoom di nga xuloo mbaa nga xeex billahi wallahi taala surtout nag bu ñu la booleeg ñoom nang leen orienté dañuy yes ci place nga ni fii la yonent bi nëbbatu woon nga gis ñu commencé far xeer yi di tibb ci suuf si nga ni hee ñu ne la xoolal dimbali nu dimbali nu de yow gëmoo ko ñun gëm nañ ko gëmoo xeer yi ñun gëm nañ xeer yi dañ koy yóbbu mënoo ci dus wallahi wallahi lazim ñii dañuy tibb xeer ñii di fori xeer ñii di tibb suuf ba ba ñuy ñibbisiwaat suuf suuf kese la xeer xeer kese la am benn njëriñ moo tax Omar ibnul Xataab bi mu ñëwee ci xajaratul aswad mu fóon xeer bi da ko ne alimtu annaka xajar la tadur wala tanfa law lam ara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat mu doog a fóon xeer ne ko soo gisee ma lay fóon damaa gis ki gën ci nit ñi di la fóon rek moo tax ma fóon la de mais yow xeer kese nga su ma gisuloon yonent bi di fóon du ma la fóon loolu mooy iman gis nga moo tax Omar bi mu ñëwee garab googu yonent bi jaayante woon mooy bay aturi daan te yonent bi toogoon wéeru fa Omar gis gaa yi di di di bugg a bokkaale mu joxe ndigal gor leen garab gi sànni ci mbalit xoolal ñun fii ay garab ak da ngay dégg ñu sëñ bi naan na fii rek waa ji plongé bunjum naan ndoxum sam-sam sax taxul ni dugg àjjana te ndoxum sam-sam xanaa moo gën ci ndox yi bopp naan ko sax taxul nga dugg àjjana jaamu yàlla rek mooy tax nga dugg àjjana diw raay na fii nga raay ko amul benn njëriñ diw toog na fii nga foon ko amul njëriñ jaamu yàlla rek nit daal li koy dugal aljanna mooy jaamu yàlla waaye ay xeer ak ay ndox ak xoolal fii Sénégal allahu akbar ut nañu ay place yoo xam ne place yi daanaka mook amaakinul muqaddasa ya nekk Màkka mook ñi nekk Sénégal ñoo yem te place yooyu yëpp xam ngeen pour lan la lekkukaay kesel lekkukaay ku fa dem ku ne di nga fa bàyyi dara soo ko bàyyee ñu buub def seen poos ñoom ñi nekk foofu sax gëmuñu place yi waaye comme nit ñi ñoom ay dof lañ kenn nanguwul yeew kenn nanguwul muus kenn nanguwul am xel xelu loolu yàlla naan afala taaqiluun lu tax du ngeen xelu nit ñi dañoo lànk ne duñu xelu benn waaye nee na ma man xam nga kan laa kañ laa bàyyi bay tool bay sëriñ bi tool xam nga kañ la mu ne dañoo nekk ci benn bis bay bay bu métti métti naaj bi tàng jër sëñ bi ñëw toog daane taal leen ma ñaanal leen ñëpp taalal mu ne yéen ñëpp du ngeen aljanna mu ne nit ñi di yuux di jooy mu ne ma xool mbooloo mi gisuma doomu sëriñ bi gis ma jarbaatam gis ma benn mbokkam gisuma ci mbooloo mi ku sant santam ma ni lii naxaate la ñoo ñooñu gën a bëgg àjjana te teewuñu lu tax teewuñu te àjjana ñëpp ko bëgg wala ah yonente bi saa salaam bu jiite bu digle woon liggéey moo ciy jiitu keroog ba ñuy tabax jàkka ji yonente bi moo ci jiitu ndeysaan sahaaba yi bu ko tere Hamza ñëw jàpp ci loxoy sahaaba yi ne leen bàyyi leen innahu yuallimuna al amalu ibada innahu yuallimuna anna al amala ibada yonent bi dem di yenu ay birig téeñ musóoram musóoram la def téeñ teg teg birig di yenu di indi di joxe sahaaba yi ne ko toogal mu ne leen al amalu ibada liggéey jaamu yàlla la yonent bi sàmm na xar ay xar ñu koy fay wala yonent bi nee na sayyidul qawmi xaadimuhum ñun nag Sénégal ku fi wàcc alxuraan dañ lay kaala dootoo liggéey te la ngandum garam mbubu ngandum mbax ne ngandum mbubu nga toog dootoo liggéey léegi luy sa métier da ngay ñaan rek da ngay ñaanal nit ñi seen aajo faj xaw ma ñaan nga ñaanal seen aajo faju waaye moom sa aajo faju ne comme dof yaa ngi dem di indi di la jox nañ yeew yàlla li mu wax mooy dëgg leneen lu nekk lu dul waxu yàlla su la nee nga gëm bu la nee nga sànni ci xaj waxu yàlla ak waxu yonent rek moo fi nekk texte yu wér yu ñu war a gëm di ko jëfee mbokk yi borom bi nee na maa yawaddu bëggul musul xemmem allazina ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañ min ahlil kitaabi nekk ñooñu téere walal mushrikiina ak bokkaalekat yi xërëmkat yi an yunazzala yàlla wàcce aleykum ci yéen jullit yi min xayrin ci benn yi xoolal baat bi yàlla wax min xayrin min xayrin xamul daa yàlla mu def ko nii yéen ñi jàng arab xayr lan la nakira la min xayrin loomu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti bëgguñu yàlla wàcce ko ci yéen bëgguñu ngeen am ko yàlla mi ñu wax li kay yàlla moo wax dëgg waaye bu ñu nee yàlla daf ñuy nax non tubaab yi dañ ñu baax lañ les nasaraan la vraiment ñoom dañu ñëw fii di ñu faj di ñu faj am na feebar yu bëri yu ñuy jooy seen comprimé yi ñoo ñu ko jox. ak lekk yi ak naan yi biñ ñu commencé jox engrais la suuf si yàqu biñ ñu indilee planning familial la dëkk bi tas bi ñu commencé di ñu jox seen meew yi xoolal meew ñaata façon meew moo am Sénégal li Oustaz Alioune Sall di wax mu ne keroog ba ma déggee ñuy publicité naan meew mi moo gën a wóor mu ne laa xam ne am na bu wóorul kon waxul dëgg ñu ne bii moo gën a wóor kon am na yu wóorul yu nekk ci biir dëkk bi ñu koy naan wala xool leen xool leen jimbo ak lan oromasi est-ce que oto bii oto oto bii dajale li ñuy defaree jimbo mos nee na la na romb kan la mos a romb fi ci jàkkee ci oto bi billahi wallahi taalaay oto boobu ku mu romb fekk nga woor di nga dog ndax lu xasaw lu ñuy defaree jimbo te xoola tey ku lekkul jumbo wala oromasi da ngay naan da nga yaakaar ne lekkoo te feebar kese lay indil xeet yi feebar feebar kese waa ji nee na oromasi kib masi pharmacie ku la gën a mën a bëgg jumbo hôpital rek ah bu njëkk ba yéen ñi nga xam ne fekk ngeen ay at yu néew ci ginnaaw est-ce que jumbo amoon na te lekk yi dafa neex mais léegi lu nekk lañ ciy def ci lekk te taloo lekk yaa ngi nii lu nekk man sax gis naa léegi ceebu ngénte ñu ci def suukar te xamoon ngeen ne ceeb kese dafa am suukar ñu daal di xooyalaat suukar tëmbal ci moo tax it loo gis sénégalais yi genn wàll gépp dañoo jabet mboolem lu nekk ñu indi tëmbal ci ceeb bi nit ñi lekk rek am na ñoo xam ne ñoom seen yoon dañuy fël rek baax na baaxul ñoom seen yoon nekk ci dégagé rek comme kaña la mbaam xuux mbaam xuux moom bu xasee sëkkal bopp bi rek mooy na plat bi jeex loolu moo tax kenn wératul kenn wératul jigéen ñi lu ñu gis toog lu ñu fekk ci marché bi ñu koy publicité suba ñu xëy indi suñu benn suñu benn borom xam-xam boo xam ne ci affaire lekk la yëngatu am na benn képp bu tudd aji numut xam ngeen ko benn képp mu ngi tudd aji numut mu ne du aji numut de pulaar la mooy aji moto kib boobu xoola kib boobu boo ko raxasee ci duus karo yu weex boo jëlee takkaay yu jigéen ñi or bi walla nga raxas ko mu xonk ci weex tal léegi mu ne du ajjinu mu te mooy ajjin moto boo lekkee ba pare too ajjinte da saa gay nii ñaam de ko too ajjinte da mu ne ko noonu wiyete ajjinu mut kono wona ko ajjin moto saa ñaami a gay ni too ajjinte da hmm? ah gis nga moom nee na seen dëkk ay xar lañ koy faje dañ koy raxase cin cin cin yu ñuul yi gis ngeen léegi ñu indi ko fi di ko def ñun ñu koy lekk te fi mu nekk nii sa jabar boo ko nee bu ko togg mu ne la damay ñibbi suñu kër loolu ñuy raxase karo di ko raxase ay or di ko raxase cin bu ko nit lekkee nan la lay def te pourtant xoolal nit ñi xam nañ ko de wallaay ñoo ko gën a xam mais dañuy bàyyi xoolal kenn du contrôler dara xoolal sàngara si léegi ay mbuus lañ ko def mbuus cent franc imam Massamba Diop maa toog ci bureau man ak moom ak yàlla mu ne maa dem topp topp topp di enquête ba fekk usine bi fu mu nekk tëngee usine bi xoolal day def sasi mbuus sàngara cent franc nit ñi di naan ci da ko salañ salañ salañ salañ te loolu gën a tuuti de maanaam lépp lu bon dañu bàyyi réew mi muy dugg rek wala yàpp yi yàpp yàpp yi ah am na pasti bu ñuy jaay graisse mbaam dégg ngeen dégg ngeen loolu gis ngeen da ngeen graisse léegi ko xam ne jullit du lekk mbaam xuux ñu indi pasti bi def ko graisse mbaam xuux yow ngay lekk rek daan mbaam xuux daada fekk yow yaa gars yi dañuy ree ndeysaan ne xoolal naan nii xoolal di ree daan ñu naan ngay ngay waaraate nag yàlla boo nekk oustaz nag daan graisse mbaam dafa araam génne benn dugal ñu ree ndeysaan mu ngoog dafa bëri dafa bëri yu araam yoo xam ne dañ ko jël defar ko ba mu rafet indil ko jullit ñi te du araam la loolu moo tax gis nga tubaab yi nekk Europe lépp lu ñuy lekk même bu dee potu potu sardin yi ngeen gis dañ ci bind alxalaal ñoom bu amul alxalaal duñ ko lekk sama dëkk renn bi baaxul yàpp bi baaxul ñoom góorgóorlu lañ sax Europe ña fa nekk nekk ay jullit am nañ fulla xoolal ñun nag quatre-vingt-quinze pour cent musulmans yenn saa sax nga gis benn waay boo xam ne bonbon yi muy defar da koy defar ba pare jël graisse mbaam xuux ruyal ko ba pare daal koy diw ci kaw affaire bi di tàkk rafet nga naan wu affaire bi bêche doore la bêche fekk yow graisse mbaamu ngay lekk te yàlla da kaa araamal loolu mbir yooyu nañ ci wa nañ ci yeewu parce que yàlla moo ko wax ci alquran yàlla nee na an yunazzala alaykum min xayrin ñoom bëgguñu yéen lu tuuti ci lu baax ngeen am ko wala lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti bëgguñu yéen ngeen am lu baax kon lu bon rek lañ bëgg suñu ko moo tax comme lu bon lañ bëgg dañuy jël lépp lu bon indil ñu gis nga Europe dañ faa tere oto buy taal gasoil ana oto yi ah oto yëpp lañuy buub indi fii acca yóbbu yóbbu leen mbalit yóbbu leen yóbbu leen yóbbu leen ko mbalit mbalitu Sénégal ñu buub rek di indi lépp lu bon ñu indil ñu lu bon rek ñu ne yóbbu leen foofu koo xoolal ñun suñu question santé arrange yitteelunu xam nga lu nu yitteel non oto bi daw Europe cinq ans la fa def quoi non quatre ans la fa def trois ans ñoom bu baaxoon ñu téye ko foofu lu tax ñu sànni ko lu tax ñoom ñu lu tax ñun ñuy nangut nit ñu weex ñi di ñu gën di ñu bëgg di ñu gën lu tax ñu koy nangu lu tax te ñu nekk ay nit ñu nekk ay nit te lu garaaw mooy tey kenn ci ñun bu bu demee foofu rek ñeenti weer juróomi weer rek mu mel comme ñoom droit yi am am bi lépp normal mais nag comme yaa ngi fii rek nga nangoo nekk dof lu tax loolu te ngeen jàng ne yaram benn la foo dóor rek wala ñoom seen yaram moo gën suñu yaram non ñoom dañoo nangu nekk nit ñun ñu bëgg nekk ay dof loolu mooy wax ci borom bi nee na tabaraka wa taala yi wow ñoom ñu leen di iñaane fan la bàyyeekoo mu ne min rabbikum ci seen borom na ngeen yëg ne yàlla wallahu moom yàlla yaxtassu mooy jagleel bi rahmatihi ci yërmandeem man yashaawu ku ko neex allahu akbar yàlla nee na sama yërmande samay xiiwal maa ko moom ku ma neex laa koy jox wallahu yàlla yaxtassu mooy jagleel bi rahmatihi ci xéewalam ci yërmandeem man yashaawu ku ko neex yàlla moom moom yërmandeem ku ko neex mu jox gis nga yonent yàlla muhammad yàlla moo moo ko neex mu tànn ko def ko muhammad Muhammad yàlla la neex mu def ko yonent sahaaba yi yàlla la neex ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nattu na xolu yépp mu gis xolu Muhammad moo gën mu ne kii mooy nekk xayru xalqillah mu nattuwaat yépp mu gis xol yi ànd ak yonent bi ñoo gën mu ne leen yéenay nekk sahaaba Muhammad ñun bu yàlla xamoon ne sunu xol yi baax nañ kon mu boole nu foofu kon lan lañ ci lan lan lañ lan ñun lan lañ ci war a jëlee mooy ñu nangu ko ñu nangu ko yenn saa ngi dégg kenn ku ne man bu ma yàlla tàggoon wóor na yàlla du ma nekk sénégalais gan yàlla mi la def neexu la bu ma yàlla tàggoon man du ma ñuul ba ma da nga gis ñi ñi di xeesal moo tax ku ne xeesal du weddi yàlla rek yow jàngoo déggoo texte diine yi saar bi nga xam ne aaya bi nga xam ne genn wàllu jumaa ji ñëpp mokkal nañ ko aaya bi lan la wax yaa ayyuhal insaan ma garraka bi rabbika alkarim allazi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa yàlla moo nu neex moo ko neex ñun ñi ñu ñuul ci melokaan bu ko neex fi ayi suratin ci melokaan ma shaa bu ko neex moom yàlla rakkabaka la nu formé ñun moom yàlla moom loolu moo ko neex ñun ñu ñuul ñu dëkk Afrique ñële mu neex leen ñu weex dëkk Europe ñële mu neex leen mu neex ko ñu xonq dëkk Amérique ñële mu neex leen mu neex ko ñu jaune dëkk Chine ak ca kawam ñeenti xeet yooyu la yàlla def ci àdduna ku ñuul ku weex ku xonq ak ku jaune ku nekk nag war a nangu li la yàlla def ku ñuul nga ndeysaan keroog ba Abu Zarr xoolee Bilaal ne ko yëpp nu sawda bila abu zar xool bilaal ne ko yab nu sawda doomu ku ñuul bilaal daa dem ba ci yonente bi rek ne ko ne ko ya rasulallah inna aba zarrin yuayyiruni bi ummi aba zar day mu ngi may xase sama ndey yonente bi xool aba zar ak ni mu màggee ci lislaam mu ne ko innaka imru um fika jahiliya yow day abu zar day ndeysaan ku baax nga de waaye ceddo des na ci yow ceddo lu dul lislaam des na ci yow lu dul lislaam Aba Zar dafa rot ci suuf daan ne yaa Bilal taal li tadaa qadamaka ala xaddi li yakuna iqaaban lii Bilal kaay jëla sa tànk teg ko fii ci sama lex ndax mu nekk mbugal pour man Bilal ne ko maazallah an adaa qadami ala wajihin sajada lillah yàlla ma yàlla musal may jël sama tànk di ko teg ci jëbu su jootal yàlla wala ñoom ñaar ñu daal di mbokkowaat yëf yi jeex kon nekk ku ñuul du gàcce lu tax nag yow bëggoo nekk nit ku ñuul te yàlla ne moo ma neex ma ñuulal la lu tax sénégalais yi bëgguñu nekk ñu ñuul bëgg ñu am kawaru nit ku ñuul bëgg ñu am weewu nit ku ñuul bëgg ñu am xefu nit ku ñuul bëgg ñu sol yére nit ku ñuul bëgguñu am kawaru nit ku ñuul bëgguñu sol daal nit lépp rek dañ koy changé changé ba changé tur bi noo tudd Alexis lépp la ñuy changé tout lépp lu tax xanaa nekk ku ñuul crime la waaye nag day na waar de wax dëgg yàlla day na waar parce que nit ku ñuul moom dafa nanguwul dafa nanguwul dara dafa nanguwut a liggéey dafa nanguwul avancé benn waaye daf ñuy tooñ quoi mu ne yàlla dafa bind nit ñi ba pare mu convoqué tubaab mu ne tubaab ñëwal soxla naa la tubaab di dem daal di romb arab mu ne arab foo jëm arab bi ne ko foo jëm mu ne ci yàlla ñuy dem ba ci yàgg ñu daje ku ñuul ku ñuul ki ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko ci yàlla mu ne ma gunge leen ñu ne waaw ñoom ñett ñu dem ba egg ci yàlla yàlla mu ne tubaab loo bëgg mu ne xam-xam yàlla may ko xam-xam moo tax tubaab am xam-xam yàlla mu ne arab bi loo bëgg mu ne alal yàlla may ko alal moo tax ñoom ñoo am alal mu ne ku ñuul ki loo bëgg mu ne non man dama leen gunge woon rek man dama leen gunge woon man bëgguma bëgguma dara dama leen gunge kese comme ni yéen nag ay gungekat ngeen moo tax mbir mi doy waar allahu akbar nit ku ñuul fecc rek fecc fecc rek fecc rek ak way fecc rek fecc rek moo tax gis nga diine ji fecc rek guddi gu nekk timis boo tëddee rëngërë rëngërë rëngërë rëngërë rëng fecc rek fecc rek ak way borom bi nee na wallahu yàlla yaxtassu mooy jagleel bi rahmatihi ci yërmandeem xéewalam man yashaau ku ko neex loolu moo tax yahud yi daanu keroog ba yàlla jagleelee yonent yàlla muhammad risaala gi ñu ne ñoom ci ñoom la waroon nekk ci ñoom lu tax lu tax yonent bi di nekk arab lu tax yàlla ne moo ma neex wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yashaa kii moo ma neex moo ko moom la neex yàlla lu ko neex lay def deful yow lu la neex yàlla moom moom yëfam mu jagleel ko ñii mu def kaaba gi mu nekk ci digg adduna bi mu def fa ndoxum zam-zam def fa xajaratul aswad def fa maqaama ibrahim def fa safa ak marwa mbooleem place yu baax yu sell yi mu def ko foofu wallahu yaxtasu bi rahmati man yasha yàlla nee na may def lu ma neex jeex na su ko defee yow lan moo la ci war mooy nga nangu li yàlla def nga nekk jullit fa kullama faala al jalil fa huwa jamil lépp lu yàlla def loolu mooy lu rafet ndax yàlla du def lu ñaaw mu ne wallahu yàlla zul fadlil azim mooy borom xéewal yu màgg yi xéewal yi kan moo ko moom yàlla kenn moomul xéewal ku dul yàlla min xayrin boobu ngeen ñu doon jàng sànq an yunazzala alaykum min xayr min rabbikum ay min al wahyi wahyu alquran buy wàcc yàlla di ko jox yonent xéewal la sharia bi wahyu bi ëmb yàlla jox ko yonent yàlla muhammad moo ko neex aw anwaul hidaaya wala xeetu njub yi wa tariqul isaad ak yoon yi nga xam ne ku fa jaar baax wal ikmaalu fi diin yooyu yëpp ay xéewal la yàlla tabaraka wa taala ku ko neex la koy jox waaw gis nga même fii da ngay gis ñu ne benn jàkk ñu tabax ko pare ñuy daanu imam nga gis ñuy xool sant yi ñuy xool sant yi wala ñuy xool xeet yi xeet yi di xool xeet yi ak sant yi au lieu ñu seet ku fi raw ku gën a ragal yàlla déedéet non non yéen du ngeen jiite non non non i kii du fi jiite kii seeni maam yow sa maam ah koo wax maamam yow sa maam nag kii ay maamam ay jaam lañ yow sa maam lan la ñëpp seen maam yi ay jaam lañ maamam kenn du fi gor ñëpp xanaa seen maam yi duñ jaamu yàlla ñëpp ay jaamu yàlla lañ ba pare ñëpp fan lañ bàyyee ko bu la benn waaye ne yow sa maam jaam la ne ko yow kuy sa maam na wax nag ba génn ci aadama nag fekkee bokk leen aadama yenent bi ne kullukum min aadama kullukum min aadama lay lay la te nag sama mbokk yi ni ñu gëmee doo bee ko xorbe ɓe ko hawluɓe ɓe gona rimɓe ay tëgg lañ ñi ay géer lañ sénégal a bëri façon ñi ay ñeeño lañ Ouh, ñun ñun ouh, ñun duñu toog ak ñooñu sax ñun duñu wax ak ñooñu xanaa ñooñu dañoo amul xaalis rek ay bu ñu amee xaalis ndaw toog ak ñoom ndaw wax ak ñoom ndaw ziyaara ji leen ndaw yàkkamti leen a gis xaalis rek koo dégg ñu ne noo sant rek kër goo dem ñu ne noo sant amoo xaalis amoo xaalis wallahi boo doon lekk yàpp nit am xaalis boo ñëw ñu ne bismillah ki mu lekk moo ko def moo aarul boppam bañ lekk ko xaalis rek mbiru xéewal yépp ci yàlla la bàyyee ko ñépp a yem ci yàlla tabaraka wa taala yéen ñépp ci aadama ngeen bàyyee ko aadama fu mu bàyyee ko kullukum min aadama wa aadama min turaab yàlla nee na yéen ñépp ci suuf laa leen binde minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha kan mooy dee fii te duñ la suul ci suuf ci ñun yàlla kan mooy dee ñu tabaxal la benn benn étage ci kaw a kaw def la fa bàyyi la foofu ci kaw étage bi ci suuf la yàlla tibboon bind ñu bu ñu deewee ñu dugal ñu suuf bu ñuy génn ñu génn ñu ci biir suuf ñépp a yem ci yàlla tabaraka wa taala ñépp ay jaam lañu in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahman abda abd ñépp ay jaam lañ in kullu la yàlla wax nag kull man fi samawati wal ard ñi nekk asamaan li ñuy foor foor ay jaam lañ ñi nekk ci suuf li ñuy foor foor ay jaam lañ léeg-léeg ñuy wax nag naan ñépp jaam lañ benn waay xelam bu gàtt am ku muy xalaat naan kooku du jaam kooku mooy jaam bu ngand bi fii may wax ak yéen ku xalaat diw du jaam kooku mooy punkalu jaam bi fii may wax ak yéen laax de ku sa xel dem ngay xalaat ne du jaam kooku ay jaam bu ngand bi laa wax ñépp jaam lañ yàlla moo ko wax Muhammad sax jaam la moo tax moom li mu gënoon bëgg ñu naan ko jaam keroog bu mu déggee nasaraan yi di jay Isa naan doomu yàlla la mu ne leen laa tatruni kama atarati nasara isa bnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan billaay moo waroon ngand ngandalu te ngand ngandalul yonent bi yàlla jox na ko jumtuwaay yu mu wanee nit ñi man ngandalaa te mu ne moom du ngand ngandalu lu tax yàlla yónniwu ko pour mu ngand ngandalu aka neexoon waaye gis nga de defu ko te pourtant waroon na koo def ndax moom mooy soppe yàlla bi alxabib ibrahima mooy xalil moom mooy xabib mal farqu bayna alxabib wal xalil farqun kabir yonent bi yàlla daf ko respecté yàlla musul sàllalu yonent bi muhammad saa sallam jàng leen alquran li ngeen gis yàlla mu ne yaa ibrahim ci tur bi ci digg bi la yàlla di jaar ne ko yow ibrahima diw yaa muusa am na ci alquran wala amu ci yaa nuux yaa adam yaa isa yaa yusuf yaa yonent yëpp yàlla ne leneen yaa diw muhammad amul yaa muhammad amul ci alquran yaa ayuhan nabi e yow sama yonent yaa ayuhal mudassir e yow ki sangu yaa ayuhal muzammil e yow ki muuru gis nga même yàlla fi mu jaar ci turu muhammad sàllalu ko te dafa am lu mu ci teg muhammada rasulullah gis nga yasin wal qur'anil hakim innaka la minal mursalin yàlla ci boppam dafa dafa weg yonent bi ba pare ñun ñu ne duñ ko weg ñun ñu ne ñun duñ ko bëgg yàlla weg ko bëgg ko respecté ko jagleel ko lim ko jagleel ñun ñu ciy soxor mani ku fi sa furno boy nag ku fi sa furno boy Mohamed ci Mohamed ci furno Mohamed nga tibbe xal déggu leen wax bi de Sénégal dafa am dafa def fi am ñoo xam ne seen furno dafa boy fan lañ ko tibbe fan la ñu tibbe xal ku fi am dara rek ci yonent bi nga ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñun ñu am ngoree di goo xam ne dem jël ci yonent bi ba pare fàtte yonent bi da nga naan tirit yonent bi nee na mu ne la waaye diw lii la wax diw diw ndeysaan Abdullah ibnu Abbas wala kenn ci saxaaba yi danaan wax y danaan wax mbokkam saxaaba yi yéen de leen ngeen dee ma naan leen yàlla nee na yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar Umar nee nañ ñun nag waxuma Aboubacar ak Umar waaye danga naan yàlla nee na yonent bi nee na ñu ne Samba nee na sëñ Samba nee na sëñ Demba nee na sëñ Yero nee na sëñ Moodu nee na te yow da nga ne yàlla nee na yonent bi nee na mus naa fekke benn dëj fii ci aynumaan jàkka ji ci aynumaan école douze dëj kenn ci mbokk yi papam gaañu ñu dem toog di préparer paa bi di ko sang am ci mbokk yi ñu ne daf leen nañ def waxtaan parce que nit ñaa ngi waxtaan waxtaanu àdduna ma jóg def bayaan def bayaan waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan bi gudd torop ba gaa yi pare ci biir waxtaan bi doon nañ fa leeral ñu ne yonent bi nee na ñetti place kenn du fa wax ñetti place ku ko fekkee da ngaa war a noppi bu ñuy jàng alquran noppi bu ñuy suuli nit noppi jullit ñi ak yéeféer yi bu ñu dajee di xeex noppi assumtu inda salaasa bi ma paree ci waxtaan bi nekk am na ay paa yu ci mer benn paane ñu waxtaan ko ñoom seen biir foofu ñu toogoon ba dara desul léegi néew bi pare na ñu ngi koy yóbbu armée rek benn paa ñëw ci man ne ma salaamaaleykum mu ne wuyul ñaari ñii mu ne wuyul ñaari paa yi xaw ma sax li ñuy wax ma ma ne asalaamaaleykum nan la ñu ne waaw sànq dañoo dégg nga ni ñetti place kenn waru faa wax te ñun fii bu ñuy suuli ni dañuy sikkar ak di ko jàngal ay xasaay ba ñu yegg loolu sëñ suma si ñoo ko wax ma ne ko hé man dama ne la yonent bi nee na seetal ñett ñi koo gëm yonent nee na laa la wax de seetal ñoom ñett nag léegi koo gëm ci ñoom ñett man waxuma la bul def de dama ne yonent nee na paa bi ne moon wuyul ne ñëw waxoon naa leen ko de waxoon naa leen waxoon naa leen bu ngeen laajee mu tontu leen waxoon naa leen ko xool jullit ñu ne ko yàlla nee na yonent nee na mu naan diw nee na yonent yàlla Muhammad bu daan suuli nit day noppi wala daa am lu muy jàng même suñu xulu àllaa yi ñuy jàng ci armée yi yonent bi daa ko jàng barke dem moo ci mujj benn waay génn àdduna avant ñuy woor ah bi mu desee ñetti fan ñuy woor te waa ji fii la dajeeg man ci buntu jàkk ji ndeysaan wala barki démb rek am na benn mbokk boo xam ne ñëw na fi tafsir mardi mardi kañ la gaañu mardi ah kañ la ñëw tafsir ñëw na fi tafsir te suba si mu gaañu fii la toog ngeen toog ki may wax ni moom fii la dajeeg man ne ma yow ngeen di def conférence te waxu leen ma ko ah lu tax ma ne ko dañ koo fàtte mu xuloog man merci dem ñu xëy suba ne ma dem nañ leen jaamu yàlla billahi nañ leen jaamu yàlla mbokk yi xoolal kiñ ma doon wax démb ñu ne ma xëdd na dem na tafsir ba ngoon dem xëdd naafila ñëw dee kooku am na lu rafet imagineel bu woorul woon nag la ilaha illa allah doomu aadama yow da ngaa xam ne yaa ngi dem rek yaa ngi def rek yaa ngi wax sax xamoon ndax wax bi dina daan loolu moo tax ñu war a bàyyi xel suñu bopp yàlla nee na yonent nee na bu ñu ko waxee nit imam ahmad nee na iza qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras imam malik da doon wax kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza al qabr foog ñu teg yonent bi ci kaw xoolal li ko yàlla defal lépp ndeysaan te noonu la suufee bu duggoon ci mbooloo mbooloo mi fi mu tàmbalee foofu lay toog da daan dox ci biir Medina di war mbaam mbaam da daan dox dem marché ndugg nduggam yore ko nit ñëw bu ko yenu mu ne ko borom bagage moo war a téye bagage am bàyyi maag samay bagage nit ñi ñëw naan ko sang bi mu ne bu leen ma wax sang bi sang bi mooy yàlla bu ma kenn jay man kenn jay moo tax gisoo amoon na cent vingt quatre mille sahaaba déggoo ci kenn ku ne Muhammad yaay yàlla mën ngeen ko dégg yaay yàlla fii nag da ngay am ñetti taalibe rek ñu ne la yàlla nga yow yaay yàlla sëñ bi yàlla la yàlla di ko way ci mbedd yi diw yàlla la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye mbokk yi yal na yàlla jubal wallahi yal na yàlla jubal yàlla nañu yàlla jubal yàlla du morom yonent bi du morom léeg-léeg nga dégg ay woy yu ñuy woy naan diw amul morom ku am morom mooy sa mooy sa lan mooy sa borom laa hawla wala quwwata diw amul morom ku am morom mooy sa borom ki amul morom kay dañ ko iñaane wax kenn la mooy Muhammad fu amul morom keneen ku dul Muhammad ak am nga morom te li nga fi def am na ku gën a garaaw li mu def li nga def koo ko gis muy tiitaru ñu naan lii la fi def billahi am na fi ku gën a garaaw li mu def li mu def c'est jàng leen histoire koo fa gis mu ñu ne def na fi dàngam demal rek léegi nga gis bu fekkee da nga gis benn waaye bu naaw ci ngelaw li am na ko dugg ci géej gi xoolal waxi Abdou Salam Bali du sahaaba du yonent kenn ci ci siècle bii ñuy wax ak yéen ci la bokk moo bind téere bu tudd wi xaaye bu daan dem màkk ci ngelaw li lay jaar daal di egg màkk ne cëpp wàcc aj ñibbi du yëg avion du yëg bateau du yëg gaal ci ngelaw li lay jaar dem jinne ko yenu waaw loolu du dara mu nga keroog ba mu tuubee la ko génne dafa tuub fa xam ne loolu baaxul mu tuub ndax da associé ak jinne yi la woon mu tuub bàyyi ko moo bind téere boobu tudd wi xaaya mu nga kon yàlla tabaraka wa taala buy wax ak ñun ne mbir yi baax yi yi texeloo doomu aadama yi wal isaad wal ikmaali fi diin yépp ay xéewal la yoo xam ne yàlla allah subhanahu wa taala mu ngi ko jagleel jullit yi alfadl lan mooy xéewal alfadl ngëneel mooy ma kaana min min alxayri gayru muxtaajin ilayhi saaxibuhu mooy loo xam ne xéewal la bu bàyyeekoo ci yàlla nit ki soxlawu ko waaye yàlla indil na ko u diw de yàlla da ko defal tey xéewal diw de yàlla may na ko wallahu azza wa jalla huwa saahibul fadl yàlla mooy borom xéewal iz kullu ma yamnau bihi wa yu'tihu ibadahu min alxayr huwa fi ginan anhu wala xaaja bihi ilayhi abadan mbokk yi lépp lu doomu aadama am ci xéewal ba mu koy tiitaroo di ko bàkkoo wala nit ñi gis ko xam ne lii xéewal la yàlla tabaraka wa taala da cee giijal te yàlla aajowoowu ko moo tax yàlla may ko ci waaye doomu aadama yi gàtt nañ xel gàtt xel goo xam ne jàpp nañ ne ci ñun ku yàlla mayul alal yàlla mayul xéewal nañu commencé compter fii ñu toog kenn ku nekk ci ñun sa nopp bi ngay déggee rek benn nopp bi waxuma beneen nopp bi de benn nopp bi rek ngay dégg li may wax ni lu tax mu neex ci yéen parce que da ngeen koy dégg mais ñun ñi di dégg xamuñu xéewalu dégg xam ngeen ñi xam xéewalu dégg mooy ñi dul dégg bët jëlal xéewalu bët jëlal xéewalu ba gémmiñ jëlal xéewalu bakkan jëlal xéewalu tànk jëlal xéewalu biir jëlal xéewalu ñaari awra yi li nekk ci yaramu doomu aadama yëpp benn par benn konteel xéewal yi waaye ñun duñ ko gis de da ngay gis ku xëy amul cigarette boobu mu tux sax soo ko ne sawaa mu ne sénégalaisement quoi saa yi town bi da ngay maar quoi dafa dëgër yaa ñeme yàlla bu ñu nee sawaa da ngaa waroon wax alhamdulillah yow yaa ngi xëy bët yi di gis xolo fan yëpp bi bi apollo bi tuuroo ci dëkk bi koo gis mu dóor ay noir fu ndax bëggoo kenn gis bët yi ñaw bi mu wéree ñun ñëpp dañoo dindi weeri sànni ñun koy xam ngeen ne bët xéewal la ah te xoolal xéewalu bët bët ndox mi ci yàlla def nuroowul ak ndox mi nekk ci nopp nuroowul ak ndox mi nekk ci bakkan nuroowul ak ndox mi nekk ci gémmiñ te ñeent yi bu nekk am nga ndox te ndox mi su ci manqué foog nga dem jëndi ndox def ci yenn saa yi nga gis koo xam ne bakkanam moo manqué ndox mu ne dama nga jënd ma ment la tawaay ñëw di ñuqati di roof gis nga gis nga bët yi bu manqué léegi nga dem pharmacie uti tuufaay def ci gis nga bu ci manqué rek nga uti def ko ci te xoolal yàlla bi mu ciy def yii benn nuróowul ak moroomam ndox bët yi génn ndox mi génn ci bët est-ce que moom ndox mi génn ci noppayam est-ce que ndox mi moom muy te bu ci nekk rek xoolal bi nekk ci bakkan léeg-léeg nit ne ak a salte te pourtant bu fi amul rek nga am problème xam ngeen lu tax ñii ñun ñëpp ñuy noyyi nii kenn déggul bruit ndox moomu yàlla def foofu la gis nga pour ñu misaalal leen ko ba ngeen gën ko dégg gis nga bunt yi me kii di defar soudeur soudeur métallique yi bunt yi ñuy defar di ko yéegal di ko wàcc bunt bi pour mu bañ a am bruit lan nga ciy def graisse wala huile ah doo dégg benn bruit gis nga ñu bu ngeen gisee ñuy noyyi amul bruit mooy graisse gi nekk ci biir la ngelaw li day tegu rek dem fiw fiw di ñëw di génn doo dégg dara mais bu fi amul rek nga commencé naan bu fi amul rek nga commencé du rek nga dugg ci du doy de nga def uti mentalal ñu wax ba doyal gis nga de moo tax yàlla deful lenn ci doomu aadama muy lu neen amul lenn lu nekk ci nit loo xam ne di nga ko xool nga ni lii waru fi nekk xoolal gémmiñ gi ndox mi ci nekk ku mu amul ci ñun doo wax xam ngeen robinet yooyu yàlla def ci biir gémmiñ gi pour lan la bu ci amuloon minute boo toog sa gémmiñ day génne deret sooy lekk gémmiñ gi day nàcc sooy wax gémmiñ gi day wow day nàcc mais gis nga gémmiñ gi fekk mu ngi tooy rek lépp mu ngi mën a liggéey booy lekk sax lekk machine yàlla da leen di ubbi ñuy roose lekk bi ba lekk bi tooy xet ba mokk ñu daal leen di envoyé ñu daal di romb fii imagine tey bu doolu nu tooy mburu nga bëgg a ndogu ngoon nga yëy yëy yëy mu ne kacc dëgër nga yëy yëy mu ne kacc dëgër nga forcé mu tag fii nga ngaa nga ah lan la nga ni ñun ñëpp kenn ci dund ci ñun waaye gis nga yàlla tabaraka wa taala da ngay lekk affaire yi di tooy do waaye wan na sax sa yoon du ci nekk nga joxe për beneen ñëw ana allahu akbar mbokk yi nañ xoolaat suñu bopp su yàlla naan xool leen xéewal yi ma leen defal bu leen dem fële di xool yi non non fi nga toog yàlla moo tax mu ne wa fii anfusikum afala tubsiruun seen bopp rek xool leen seen bopp bala xam nga lu tax ñun duñu gis xéewal yàlla yàlla day wax xéewal yi ngay xool kër jàmbur di am na 4 am na pesero am na am na étage non xoolal sa bopp yàlla ne wa fi anfusikum seen bopp yéen afala tubsiruun xanaa du ngeen gis xoola bët bi nes xoola bët bi li ci yàlla def ci xéewal ngay xool lu nekk te fayoo de fayoo de imaginel boo xooloon ba ngoon nga bëgg a tëdd ñaari malaaka ñëw yu ponkal war seen ñaari kuur ñëw ne la kii facture bët yi la da ngaa war a fay nga wëlbati gis muy xaas bu takku te yow xam nga ne yow nekkul sa poos te ñii ñaar ñi ay ngand lañ ñu ngi taxaw di nga am problème de ngay wax ak ñaar ñu ñu parew ñeneen ñaar daan ne cëpp ne facture bi nga doon déglu pourtant téléphone bii ngay déglu da ngay fay yéen a ngi nii ku ci déglu da ngay fay Sonatel ku woote da ngay fay yàlla may na leen ngeen di dégg te fayu leen télé bi sax boo xoolee ba weer dee da ngay fay image yu jàmbur yi nga xool da ngay fay wala da dem fay courant day fay dem fay dem fay yàlla may la yow ngay xool doo fay yàlla may la ngay dégg doo fay yàlla may la ngay wax doo fay yàlla may la ngay nooy ji ngelawam bu neex bi fayu te boo feebaree léegi nga dem hôpital ñu defal la oxygène day de boo nooyee ngelawu tubaab bi nga fay waaw dañ lay facturer lu cher lii nag yàlla may la yow fayu nga xëy ñu ne la ça va nga naan non temps yi dara baaxul quoi temps yi non temps yi fa dafa dëgër lan moo dëgër yaa ngi xool di gis di dégg di lekk di naan ngay lekk ba suur dem duus mu génn boo bëggoon dem génn mu dem duus affaire bi yàlla mu ne affaire bi toogal foofu ci biir bu génn nga onk onk ba sonn ñu yóbbu hôpital yàlla mu ne affaire bi bu leen génn de kon dinañ la indil ginaar ñu ne kaay ndogu nga ne non suur naa doo ko dal doo dal ginaar yi de boo déggee ndogu naa mu neex dafa rees wala boo déggee waa ji ndogu na macha allah ndogu nga alhamdulillah dangaa lekk mu rees dangaa lekk yàlla bàyyi yëpp mu jàll gémmiñ ngi jàllale put bi jàllale biir bi da mu dugg ci biir ne teg waaye boo dul lekkoon ba pare mu nekk ci biir diingatu di tëb mu la ne ndogu nga ne ah mais mais vraiment ndogu bi war nañ xool lan lañ ko toggee ah doo fa nekk di wax kon nañ leen sant yàlla ci xéewal yim ñu defal yàlla buñ nee defal naa leen ay xéewal bu leen dem di xooli fële nañu xool suñu bopp li ñu jege ñu xool xéewal yi ñu ci yàlla defal tabaraka wa taala te nag ndeysaan yàlla defal la xéewal yoo xam ne mayu ko ñu bari xoolal te yow mi xool ñaata nit ñoo nekk ci biir réew mi ñu dul xool yow mi dégg ñaata nit ñoo nekk ci réew mi ñu dul dégg yow mi dox yow mi am ay loxo benn waaye ndeysaan dafa dafa perte benn projet rek ne day xaru benn marché la perte ne day xaru ci mu dox ci yoon bi ah bind leetaram nag ba teg ci néeg bi génn di xaru ci muy dafa jaag mu dajeeg ndeysaan benn waaye bu toog ci puus puus alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah mu ne ko eh looy wax waaye ne damay sant yàlla mu ne ko yow looy sant yow la yàlla defal mu ne koy xanaa gisoo sama yaram bi yàlla ay tànk la ma xañ bu ko neexoon mu téye nopp yeeg bët yi ak loxo yi du ma ko sant wala kii moom benn marché rek la perte ne day xaru ji quoi parce que non sama yaakaar yëpp ci marché bi laa ko tegoon quoi non man sama àdduna yàqu na ndeysaan maa ngi fàttaliku benn jamono bu yàgg benn waay bu bëggoon takk benn xale bu jigéen mu dem kër ñoom xale bu jigéen bi papaay xale bu jigéen bi ne ko mayu ma la ko mu ñëw ci man ne oustaz ne nga xam ne sama àdduna yàqu na sama duna yàqu na ma ne ko lu ko yàq mu ne paa bi nee na mayu ma booy bi loolu rek sa aduna yàqu na ana yeneen booy benn booy moo nekk ci àdduna bi ma ne ko lu tax mu ne mayu la mu ne nee na xamuma nee na xawma la du ma la may sama ma ne ko da ngay fexe mu xam la ah nan la may xamee ñetti fan ñetti fan fan bu nekk yóbbul goro suukar ak warga waa ji tegale ndeysaan semaine bu nekk mu dem warga suukar guro cinq mille dix mille benn bis mu ñëw ne waa li xam na ma léegi de li xam na ma léegi xam na ma léegi fan la ko paa bi mu ñëw paa bi may ko xale bi mu ngoog kon bul wax ne yow dangaa perte lii rek adduna bi jeex na mukk yow xéewal yu bëri yàlla may na la ko xéewal yu bëri te yenn saa yi yàlla xañ la dara fekk baaxul ci yow bu la ko yàlla mayee léegi nga murtat léegi nga génn ci lislaam léegi nga bàyyi dem jàkk xoolal Sénégal lu ñu yàlla natoo mooy borom alal yi duñ dem jàkk ministre yi duñ julli ji jàkk député yi duñ dem jàkk sénateur yi duñ dem jàkk xalifa général yi duñ dem jàkk wala xéewal googu nu mu réyee duñ dem jàkk ban ministre ngeen gis muy dem jàkk di julli tisbaar suba tàkk tisbaar tàkk naan timis gee dégg ngeen ñu ko ci seetal kenn ci ñoom député yi ngeen bokkal koñ sénateur yi ngeen bokk kenn du leen gis ci jàkka ji ñooñu sax dañoo sori nañ dem ci xalifa diine yi duñ dem jàkk da ngay gis koo xam ne këram ak buntu jàkka yi jàkkaarloo du julli jàkk xam nga lu tax dañ naan buñ génnee nit ñi dañ koy gis dañuy nëbbatu rek yonent yàlla Muhammad moo gën a foor ci nit ñi te da daan dem jàkk muy génn nit ñi di ko gis wala kon yàlla bu la mayee xéewal xéewal yi lan moo la ci war wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis mbokk yi aaya yi ñu doon jàng dinañ ci jëlee ñetti mbir bu njëkk bi mooy wujub ataaddubu ma an rasulillahi sallallahu alayhi dañoo war a am teggin ci yonent bi julli day am teggin ñun dañoo yoral yonent bi juróom-ñetti àq yonent bi jullit bu nekk bu góor ak bu jigéen yoreel nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti àq yoreel nga ko yonent bi juróom-ñett àq àq laa wax de xam nga lan mooy àq mooy droit loo xam ne boo ko deful boo dee da nga dem safara juróom-ñett loolu war nañ koo xam bokk na ci àq yooyu ata'addubu ma rasul ñu am teggin ci wetu yonent bi boobu benn la ci suñ lay wax waxu yonent bi nga ne tekk déglu ko suñ lay wax turam nga wax sallallahu alayhi wa sallam sunnaam nga dimbali sunnaam topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaanu bihi al iqtidaau bihi roy ko moom yonent bi sallam roy yonent bi yii yëpp ay àq la yoo xam ne dañ ko war a defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina fi muxaatabatihi suñuy wax ak moom bi adami istimaali ay allafz ay alfaaz lafza qad tufhamu gayru ijlaalin wal ikbaari lahu ñu bañ a suñuy wax ak yonent bi wala lenn lu jëm ci yonent bi ñu bañ a jëfandikoo ay baat yoo xam ne day wàññi martaba yonent bi ndeysaan da ngay gis Europe Europe ci xas l'islam bañ yonent bi waa Danemark xas nañ fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole koog ay jigéen def kaala gi kaala gu rëy def ci ay bomb adduna bi yëpp di riir ñëpp di marche di yuux ñu ñu wax sax ne borom xam-xam yi def ay ifta nañu nañu embargo lekk Danemark mais waa Sénégal doo dégg kenn wax Sénégal bu ñuy xas alxuraan kenn du wax bu ñuy xas yonent bi kenn du wax mais boo laalee benn tarix si doo ndogu de fàtte nañ ne islam mooy yaayu tarixa yi wala xam nga nu mel ñu saxal benn garabu màngo garab gi màgg neex kenn ku nekk ñun toog ci benn cat di garde cat bi naan cat bi ba nga laal tubaab bi ñëw moom di gor garab gi ci suuf ñun ñuy garde cat yi fu garab gi jëm bu garab gi daanoo ndax cat yi dina amati njëriñ cat yi dootu amati njëriñ loolu mooy lislaam islaam mooy garab gi cat yi mooy tariixa yi ak association yi mooy cat yi bu tubaab yi ñooy di gor garab gi ci suuf ñun ku nekk jàpp ci benn cat naan sama cat ku ko laal yor sa silaama nag ak sa kalashnikov ak sa douze coups naan sama cat ba kenn laal ko bis bu ñu goree garab gi ba garab gi daanu musiba naaru laay dal leen yéen ñëpp kon cat yi amul importance garab gi moo am importance dañu war a wekk yonent bi yonent bi ñun dañu war a nekk ay garde pour moom waruñu may kenn droit muy teg ci kaw yonent bi wala ci diineem lu méngoowul ak lu baax tey ni ñuy aaree ñeneen ba kenn ñemewu leen wax dara ñu ngi ni toog am na ci tarixa yoo xam ne ci ñun ñi kenn ñemewu ci wax dara te pourtant gis nga ci lu jaaduwut de mais ñemewoo ko wax lu tax parce que da ngaa bëgg a ndogu noonu ñuy aaree tarixa yooyu nag la ñu war a aaree diine ji aar yonent yàlla muhammad kenn waru ko wax dara dafa jaaduwul yàlla nee na du teggin ñuy teg ay baat comme baatu sànq yi ñu doon wax yaa ayuha allazina amanu yàlla di ko tere ne laa taqulu raina ñaareel bi mooy wujub assima lir rasul dañoo war a déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a déglu déglu yonent bi dañ ko war a jox suñu nopp su waxee ñu dégg su teree ñu bàyyi assima lil rasul bi imtisaali amrihi wactinaabi nahihi ñu def yonent bi lu mu digle bàyyi lu mu tere wa inda muxaatabatihi liman akramahum akramahum allahu taala mbokk yi ab julit day déglu yonent bi su yonent waxee mu bàyyi su yonent bi teree mu bàyyi am na benn waay boo xamante ne yonent bi dafa nekk ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ci biir marché bi mu seen benn waay bu takk lam yonent bi ñëw ba ci waa ji tekki lam bi xëcc ba loxo waa ji deretal yonent bi sànni lam bi lu ko yonent bi wax walaw mitta wa haza fi yadika maflahta abadan soo faatu woon lam bi nekk sa loxo doo lakk doo da ngay lakk safara nga jëm maa aflaxta doo texe mukk yonent bi dem nit ñi ñu ne waa ji yonent bi dem na jëlal lam bi jëlal sa lam yonent dem na waa ji mu ne yonent bi du tekki xalu safara sama loxo ma koy takkaat ñoo ñoo gëmoon yonent bi ñoo ñoo gëm yonent bi suñ la ne yonent bi nee na lépp loo doon def te du dëgg nga bàyyi suñ la ne yonent bi digle na nga def am na benn ñaari nit kenn koo xam ne yonent bi da doon yónni armée bi nga dem leen dëkku sàngam ngeen xeexi yonent baa ngi def loolu alxamis ci guddi bi mu jullee kee ba pare la ne ana diw mu ne maa ngi nii ana diw maa ngi nii ana diw maa ngi nii mu ne yéen ñett ànd leen ngeen dem fekki soldaar yi xeex yi ñaar ñi génn kenn ki ne leen man de suba la ajjuma ñu ne waaw mu ne man de du ma dem yonent bi nee na naa dem mais du ma dem ñu ne ko lu tax mu ne damaa bëgg suba damay nëbbatu ba vendredi su ma jullee ak yonent bi ba pare ma dem suñ ma reyee ma am ñaari bénéfice dee naa ci lislaam sama dernière ajjuma ci àdduna yonent bee ma jiiti waa ji li mu wax rafet na wala rafetul li mu wax neex na wala neexul ah gars yi ne ko ah ñun de wax dëgg yàlla ñun ñu ngi dem ñun yonent bi nee na ñu ngi dem dem leen ñun dem nañ gars yi bañ ko xaar dem seen yoon waa ji toog ba fajar bisu ajjuma mu julli nëbbatu dem këram ba jour vendredi bi jot yonent bi jiite ne asalaamaaleykum wa rahmatullah gestu jàkkaarloog sahaaba rek waa ji doon jóg doon daw rek yonent bi seen ko yonent kii na mu ne ah kay mu ne ko kaay yow démb waxuma woon mbooloo mi nañ dem ci ci mbooloo mi ma limoon nga bokk mu ne waaw yonent bi ne ko loo tere dem mu ne yonent wallahi damaa bëggoon sama mujjantalu jumaa ci àdduna nga jiite ma ko loolu rek su ma demee xam naa ne damay dee dañ may rey suñ ma reyee rek mu nekk sama dernière ajjuma yaa ma jiitee loolu rek laa bëggoon yonent bi ne ko xaw ma lan la de waaye ni la gaa yi rawee même boo duggee àjjana noonu lañ lay rawee bil aljanna gaa yi demoon démb niñ la rawee wala distance biñ la raw même boo duggee àjjana tamit noonu lañ lay rawee kon foog ñu déggal yonent bi gaa yi gaa yi bu yonent bi waxatee nañu fëx def ko sinon wallahi ñi déggal yonent bi nit ñu rawee àdduna ci jaamu yàlla noonu la ñuy rawee allaaxira ci biir aljanna ku gëm yonent bi ak ku gëmul yonent bi mënuñu tolloo ku déggal yonent bi taalibe yonent bi ak beneen taalibe mënuñu am mënuñu tolloo ni yonent bi ëppee nit ñi martaba noonu la taalibe yonent bi di ëppee ñeneen ñi martaba du benn kon ku yebu nekk taalibe yonent bi yéen ay taalibe kan ngeen man de xaw ma kenn waaye taalibe yonent bi laa xaw ma kan nag man sama bopp laa xam yéen nag ku mu neex nga nekk taalibe Moodu mbaa Ngañ wala Demba ah kon wujub dafa war assima li rasul déglul yonent bi nan lañ koy dégloo mooy bimtisaali amrihi jàpp ci ndigalam waccinaa bi nahihi moytu lu mu tere noonu la ñuy déggale yonent bi mooy dégg ndigalam def dégg terem bàyyi sallallahu alayhi wa sallam su ñuy wax ak moom wala muy wax ak ñun ñu xam kan mooy wax ak ñun kooku mooy ñaar ñetteel mooy at tahzir aaya yaa ngi mooy tandikuloo minal këfri ci weddi yàlla tabaraka wa taala comme ñan ni ñaari xeet wala ñetti xeet yi ñu jiitu woon weddee yàlla mooy yahud ak nasaraan ak mushrik ñooñu ni ñu weddee yàlla aaya yaa ngi ñuy dànkaafu balaa ñuy dugg ci ñetti kuréel yi ndax ñetti kuréel yi yàlla moo ne safara lañ jëm inna allazina kafaru min ahli lkitaabi wal mushrikina fi naari jahannam kon na ngeen mooy tëndiku nañ leen mooy tëndiku balaa ñuy dugg ci ñetti kuréel yi di dugg safara yàlla nee na ahlul kitaab safara lañ jëm mushrikuuna yi te mooy ñiy bokkaale safara lañ jëm te xam ngeen ne Sénégal bu ñu bokkul ci ahlul kitaab yi mucc ñu ci bokkaale bokkaale dafa fees Sénégal bokkaale la ilaha illa allah bokkaale dafa fees réew mi te bokkaale yàlla du baale bàkkaar bi innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaar wa ma lizaalimina yàlla nee na li wóor tey mbir ku ma bokkaale jahannama nga jëm safara xool yonent bi ni mu foore ni mu màggee yàlla ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin allahu akbar kan la yàlla di wax yow muhammad ne ko la in ashrakta wallahi giñ naa yow muhammad soo ma bokkaale woon la yahbatanna amaluk sa jëf yi nga jëfoon yépp yàqu na xanaa bu yemoon foofu doy na mu ne ko la ku latakunan na min alxaasirin di nga bokk ci ñi perte muhammad la yàlla wax muhammad ne ko soo ma bokkaalee perte kon yow mii nag te bokkaale dafa sew ashirku axfa min dabibi nam la zulumatu sawda ala xajarati sawda fi zulimati leyl xam ngeen bokkaale nu mel mi ngi mel ne mbo- mbelentaan bu ñuul di dox ci xeer bu ñuul ci trois heures du matin ñu ne la xoolal tampon tànk yi ndax di nga ko gis melentaan mu ñuul ci xeer bu ñuul ci 3 heures du matin ñu ne la xoolal melentaan bi ci xeer bi di nga gis melentaan bi yonent bi ne noonu la shirk mel da ngay xëy di jaamu yàlla ba ngoon ngay tëdd ci saxal ci kawlal daan ne maa ngi tëdd ci barke diw li nga yendoo woon def yëpp yàqu na bokkaale mi ngi mel ne kuy lekk gerte tibbal dank sex nga yëy ba gémmiñ gi fees nga yëy benn bu nëb bi nga yëyee benn bu nëb noo def li nga li nekk ci biir gémmiñ gi noo ko def ah lu tax nga yàbbi ko ah pourtant benn la sans gerte mu ngi baax mu ngi ci biir gémmiñ gi benn bu nëb moo ci rax mënoon nga ko camoufler rek sans gerte yu baax tax benn gé benn bu nëb tax nga wàcc ko lu tax parce que bu nëb bi xam nga lu mu changé goût bi la changé xoolal sang yi li ñuy baax baax benn bu nëb bi changé na goût bi loolu la bokkaale mel bokkaale baaxul jàngeen ci usulu salaas ñu ne inna shirka ida xaalata amalu saalih afsadahu ñu ne bokkaale bu duggee ci jëf ju baax daf koy yàq comme lan comme sàngara ni muy yàqee lekk baaxul bokkaale baaxul ñun nag ndeysaan dañoo lànk ne yàlla ñoo bañ ñun dañuy bokkaale ba xëy dee dañuy bokkaale ba xëy dee ñun dañoo bañ ñun waa Sénégal dañoo lànk ne ñun dañuy bokkaale ba xëy dugg safara suñu yoon nekku ci bu yeboo ñu dugg safara léeg nga dégg ku ne man naa dem safara diw kenn mënu ma ko bàyyiloo bu yeboo naa dugg man bu ma duggoon àjjana gisuma ko fa sax damay génn xam nga lu waral loolu yëpp mooy réer rek waaye xam nga ne safara kenn ci ñun du dem seen kër daan ne yaay mu ne yaa mu ne ko tegg da ngay togg ndogg mu ne waa mu ne teggil gaz bi alma gaz mu ne leer mu ne dama ciy togg kan ci ñun moo koy def parce que xam nga ne safara kenn du ci toog kon nu doomu aadama di waxee ne man bu ma demee safara ah bu ma duggee àjjana fekk ma fa diw damay génn dem safara fekki ko te leen yàlla musal yooyu yëpp ay baat la yoo xam ne iblis seytaan moo koy sànni ci suñu xel suñu leen a bàyyi leen bokkaale wala li bokkaale nga gis waa ji di rëy rëyu waaw lii bokkaale la baaxul nga di waa ji ne def leen waay waaye wax leen waay waaye yuuxu leen gis nga di jéem a ngand ngandalu fekk moo xam ne li muy wax dara baaxu ci ndeysaan suñu benn oustaz dafa dugg ci jàkka ji xam nga bu weeru koor jotee buñ jullee gee ba pare te naafilaagu ñu nit ñi ñëw ñu dañuy sikkar naan ala ilaha illa mu dugg ci jàgg ndeysaan mu fekk ñu naan a la ilaha illallah te la ilaha illa amul a parce que hamza bi istifham la mu ne leen déedéet asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu ne ni mu ne bu leen wax a la ilaha illa wala la gaa benn waay wax leen waay wax leen ci kaw la commencé mu ne déet mu ne déet bu leen waajal kenn mayetu ko sax ndeysaan mu wax te pourtant li mu leen di wax dëgg la nit dina nekk ci néegu yàlla ba pare ndax naan yàlla am na ah laa ilaha illallah mooy ndax yàlla am na te ba léegi ni rajo yi rajo yi bu ñu julleegee ba pare ci weeru koor lañu nekk rajo yi di ngeen dégg ñu koy def ah laa ilaha illallah mooy ndax yàlla am na a azhabu mooy lan a azhabu mooy ah ndax ma dem a akulu a anaam a ajlis a laa ilaha illallah mooy lan mooy ndax yàlla am na hamzatul istifham la da ngay poser question naan ndax yàlla am na ñenn ñi moom waxuñu ndax yàlla am na dañ naan laa ilaha illallah jóob jóob jóob laa wax de waxuma beneen sant jóob laa ilaha illallah jóob laa ilaha illallah maa fihi ziyaada maa fihi naqs laa ilaha ñaari baat la laa ilaha illa allah la ilaha nafiyun jami ma yu'bad min dunillah illa allah musbit al ibadatu lillahi wahdahu loolu mooy la ilaha illa la ilaha illa mooy avion bu am avion ñaata laaf lay am ñaar mooy la ilaha illa allah picc ñaata laaf lay am mooy la ilaha illa allah mooy alquran ak sunna avion bi mënul dem benn laaf d'accord ngeen avion mënul dem am benn laaf la ilaha illa allah mooy avion la ilaha illa allah muhammadan rasulullah la ilaha illa allah muhammadan rasulullah mooy avion bu am ñaari laaf la ilaha illallah mooy lan mooy yàlla la ñuy jaamu muhammad rasulullah mooy muhammad mooy wane lu ñuy jaamoo yàlla loolu mooy la ilaha illallah muhammad rasulullah du ñu jaamu kenn ku dul yàlla ni ñuy jaamoo yàlla muhammad moo koy wane jeex na loolu mooy la ilaha illallah muhammad rasulullah bi yàlla ne julli leen kan la wax nañu jàngal nu ñuy julli muhammad moo tax bi mu jullee ba pare mu daal di gees ne leen sallu kama raaytumuni usalli est-ce que sallay naa kama raaytaahu yusalli ah yooyu lu tax ngay jullee nii ah tax duma jullee nii man sama papa ak sama yaay ma fekk leen ñuy jullee nii ñun suñu sëriñ di jullee nii ñun suñu imam di jullee nii nga naan du ma jullee noonu nga ne ko non yonent bi nee na kuy jullee mu ne non non man dafa ma man nii laa jullee parce que nii man nii laa fekk suñu waa kër di jullee gis nga yonent bi ndeysaan bi mu aje aj gu mujj dafa gestu sahaaba yi ne leen xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla xuzu la wax xuzu anni manasikakum kon ñetteel bi mooy nañu mooy tandiku dugg ci ñetti melokaan yi dugg aaya yi li ñuy jàngal mooy ñu mooy tandiku dugg ci ñetti melokaan yi dugg ci melokaanu yahud yi wala nasaraan yi wala bokkaalekat yi li annahum aadaun ndax ñoom ay noon lañ nit nit du xaritoog noonam wala yàlla waxuñu ne yahud ak nasaraan ak mushrik yi sunuy noon lañ la tajidanna asadda annaasi adawatan lillazina amanu alyahud dégg nga de kon yàlla xamal nañu ñoom suñuy noon lañ yaa ayyuha allazina amanu laa tattaxizu laa tattaxizu aduwi wa aduwakum awliya yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla wala baatu ni daa la wax yaa allazina amanu mu ne bu leen jël sama noon sama noon ak seen noon ngeen di xaritoog moom tey kan ñoo ñooy financé sunu marché yi yahud yi ñoo ñuy financé ñooñu ay noon lañ ba pare dañoo iñaan yàlla moo ñu ko wax iñaan lañ def ndax lan dañ leen a soxare yéen jullit ñi xéewal yi leen yàlla defal te mooy yàlla jagleel leen muhammad jox leen alquranul karim ndeysaan aaya yaa ngi ñëw ci kanam dinañ gis lan moo tax ñoom ñu nekk ñu iñaan mu ngi nii wadda kasirun min ahlil kitaabi law yuradduunakum min baadi imaanikum kuffaaran hasadan gis nga alquran moo wax dëgg suñ jàppee ci alxuraan dañuy xam ñan ñooy sunuy noon ñan ñooy sunuy soppe ñan lañ war a faral ñan lañu war a gëm ñan lañ war a déglu waaye bu ñu sànnee alxuraan tey mooy li xew ñun ñëpp noon yi la ñuy associé ba pare di xas alxuraan di xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare yor jikko yahuud yi yor jikko nasaraan yi du ñu deñ di leen wax ne su ngeen demee Amérique di ngeen fa fekkoon benn waay bu am doole daan box dem màkk daal di tuub changer turam waaw nu mu tuddoon waa ji Tyson Tyson mu daal di tuub sànni tur bi daal di tudd lan ah nu mu tudd mu tuddee boppam Malik Abdul Aziz waa Sénégal ñoom tub bi sànni seen tur sànni Muhammad bi tudd Tyson déggu leen li ma wax de ke daa sànni Tyson jël Malik Abdul Aziz kii sànni Muhammad jël Tyson gis ngeen ndeysaan Muhammad ban tur moo ko gën a neex ci àdduna keroog ba mu juddoo maamam moo ko jël wër wër ak moom kaa bëgg juróom ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammada ñu ne ko limaza mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard muhammad abdou aziz touré nee na muhammad tur bi dafa neex dafa am vitamine c muhammad ndeysaan nee na tur bi dafa neex dafa am vitamine c waxal muhammad nga won na ko nga xool da nga yëg vitamine c ci sa put muhammad ndeysaan maam ji ndeysaan bi mu juddoo da koo jël wër ak moom kaaba gi juróom-ñaari jéeg ñu ne ko nu mu tudd mu ne muhammad ñu ne ko lu tax nga tudde ko loolu mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard ngir mu nekk ku ñu gërëm ku ñu sant diggante asamaan ak suuf yàlla def na ko mu nekk ku ñu gërëm ku ñu sant diggante asamaan ak suuf na nekk ku ñu gërëm ñu tudde tur boobu jullit yeneen bi saa salaam wax na hadis hadis bi gars yi dañuy jam hadis bi nee na bu ñu tuddee xale muhammad na ngeen wekk xale bi bu ñu tuddee xale muhammad mu ne na ngeen respecté xale bi fu ngeen toog bu ñëwee na ngeen yaatu place mu toog su ngeen di wax ak moom na ngeen xam nu ngeen waxee ak moom ñun dañuy jël tur muhammad fekk ku ñu tuddee muhammad ñu changé tur bi tuddee ko lan ah ay Kemzoog ay Moag ay Emzoog kenn xamul luy Emzo ci àdduna Emzo lu muy tekki Emzo ah man yàlla jubal c'est que dañuy wax rek mais diine moo dee ci Sénégal diine diine moo fi nekk en fond diine moo fi nekk dañ leen yàlla jubal mu ne falaa yahillu du dagan arrukunu ilayhim jeng jëm ci yéeféer yi du dagan fala yaxillu la wax du dagan arruknu ñuy jeng ilayhim di dem ci ñoom wal iti wal itminaan wala ñuy am dal ila aqwalihim wa afaalihim du dagan ci julit ab yahud wala ab nasaraan wala ab mushrik di wax nga naan waaye dëgg la kay dëgg la waaw ba pare nga gëm li mu wax yow gëmoo yàlla yahud ak nasaraan ab ab mushrik du ñu jubal jullit mug lu koy indil jàmm duñ la indil lu lay indil jàmm duñ la orienté ci lu lay jural jàmm duñ la wax lu lay tax yàlla kontaan ci yow wala yonent bi kontaan ci yow jamais is arribatu jàng ngeen loolu laa tufaariquhum arriba laa tufaariquhum wor def dut indi sikki sàkk du tàqalikoog yahut ak nasaraan kon mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala téere bi muy alquran suñ koy jàng di ko jàngalante nekkul rek dem tafsir daan ne tafsir bi ak garaaw tafsir bi nangam nangam déedéet dañuy war a ñëw ñu jàngalante fan la ñuy teg suñu tànk bu koor gi jeexee ak ci biir koor gi yépp alquran bi du weeru koor ba weeru koor moo tax ñu koy jàng moo tax ñu koy jëfee islam bi kenn du jaamu yàlla ndax weeru koor rek kenn du julli dinaa fi la ndax weeru koor wa abud rabbaka hatta yaatiyakal yaqin jaamul yàlla ba dee ñëw julli day jaamu yàlla ba dee ñëw fekk ko ci waaye naa jaamu yàlla ci weeru koor naa tafsir ci weeru koor naa déglu alquran weeru koor naa góorgóorlu weeru koor weeru koor jeex na nga ni xaaral ma dellu ci kufri gi xaaral ma dellu ci sirk xaaral ma dellu ci bidaa loolu musiba naaru laay la loolu jullit du ko def incha allah mbokk yi ñu la ñuy yem ba suba ak jàmm yàlla def ci ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullah